la xaar waaw wallay wallay seen jërëjëf wallay jërëjëf kii mooy délégué de quartier seen seen seen ba quinze mille quinze mille mooy délégué de quartier gën kontaan ñoo gën a kontaan ci ñoom macha allah macha allah ma quinze mille bàyyi coono ay sax aɗa selli aɗa selliɗa tampere wallay jejewallay jeeseer ko gewnu gewnu kamɓe yàlla mottigi jar moo ko jar délégué ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant sa teewaay rafet na Thierno Idi imaam mu ni toogaay bi yàgg na lool waaye nag olof dafa am lu mu wax ko am gan yokk reer lu ko jar moo ko jar bu ko jarul woon du fi toog ndax ay wóolare imaam ngeen mu yaakaar leen ngeen bokk koñ bi bokk kàcc bi di xàccandoo di dóorandoo bu nee délégué da naan imam foo jaaxlee si ñoom ngay jëm buñ la wooyee kan di nga wuy ji bu la imam wooyee da nga wuy ji bu la délégué kàcc wooyee di nga wuy ji jërë ngeen jëf imaam neen asalaamaaleykum yonente bi dafa wax ni yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp gëm yàlla gëm yonente bi gëm yonente yaam na nga teral sa loolu moo tax ci suba ba léegi ñu ñëpp ñu toog ngir teral ko euh, Cheikh Alassane Sène ndar gépp sa deret la sa bërëb la waaye fii yëgal ni sa bërëb la ndax fii bë bërëbu yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam si lu amul benn sikk bërëbu yàlla la ci lu amul benn sikk. ci amul benn sikk. te te àddina bépp. àddina bépp. xam nanu xam nanu. sa cofeel sa cofeel. ci yonent yàlla Muhammad ci yonent yàlla loolu moo tax. loolu moo tax. ñu sawar lool ñu lool. pour ànd ak yow waaye bu fekkoon du loolu. bu fekkoon nag du loolu. mën na am nit ñu bari duñu sawar. mën na am ñu bari duñu sawar. waaye su sawarte. waaye suñu sawarte. premier. mooy. mooy. sopp gi nga sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg nag bi ñuy euh, karité euh, yonent bi bi ñuy karité bi ñuy karité yonent bi def ci moom ay ay bind yu ñaaw def si moom ay bind yu ñaaw moom mii moom mii dugg na ci prison dugg na ci prison treize mois treize mois ñu bara xamuñu loolu moom mii ngeen di gis dugg na prison dugg na prison treize mois ngir sopp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kilifa réew mi moo ko dugal prison ngir la mu jël engagement cofeelam si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam treize mooy fukk ak ñett mooy ahadun xul allahu samad lam yelit wala walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad baatu ahad mooy treize treize mois si biir prison ngir yant yàlla Mohamed si biir loolu taalif na fa téere boo xam ni quatre mille pass la si yant yàlla Mohamed kon moom prison bi jërëjëf jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla ci prison bi ndax mën na am su amoon jot boobu mën na am bu amoon jot boobu du def loolu kon dugguloon prison waaye xeex gi mu xeex ngir yonent xeex gi mu xeex bi la ko yonent bi faye pour yóbbu ko prison ngir mu mën ko ngir tagg ni mu ko bëgg ba mu génnee ba mu génnee tombé coronavirus bi ñëw tombé coronavirus bi ñëw machine bi nga xam ni machine bi nga xam ni machine bu jafe nga xam ne siin la am. nga xam ne siin la am. ca waaya. wala boog ca américain. wala sa américain ya. moom moo ko jënd. moom moo ko jënd. ci alalam ci alalam. ay millions yu bare. ay millions yu bare. may ko président may président. te ka tëjoon te président ka tëjoon nag. xoolal bijj ko. xoolal bijj ko. wut lu tolloog. wut lu tolloog. fukk ak benn fukk ak ko ëpp. baalu ko ay laadum. ci ay laadum. te benn laadum bu ne. benn laadum bu ne. bu jarul 500000. bu jarul 500000. da koy ëpp xanaa doom ji. mu jël ci waaw kon nag kon ëpp. kon da koy ëpp. mu jël ci fukk ak benn. mu jël ci fukk ak benn. fukk ak benn. fukk benn. mooy huwa. mooy huwa. huwa. huwa. boo jëlee al al boo jëlee al mulku. mooy firi nguur. mooy firi nguur. xulillahumma. xulillahumma. malikul mulk. al mulk. al mulk. mooy firi. nguur. boo jëlee al mulk. dalay jox cent vingt et un. jox cent vingt et un. boo jëlee cent vingt et un boo jëlee cent vingt et un. nga diviser ko par huwa nga diviser ko par jox onze da jox onze. kon onze kon onze. fois onze fois onze. cent vingt et un mooy al mulk mooy al mulk. mu jël onze laadum mu jël onze laadum. joxaat président joxaat président. ni ko ni ko maa ngi lay sant maa ngi lay sant di la gërëm si tëj bi ma tëj ndax tëj bi nga ma tëj ndax tëj bi nga ma tëj ci laa occasionné taalifal ci yonent bi ba taalifal ci yonent bi. 4000 paas 4000 paas. kon kii kon kii. fa yàlla dogal na 2011. yàlla dogal na 2011. commencé di waxtaan ak nitu réew mi. laa commencé di waxtaan nitu réew mi. ma jaar ko ci ku Balde. ko ci moo nekkoon Robert Sagna Dakar. moo nekkoon Balde. moo tax moo tax. Mansour Faye ma xam Mansour Faye ba tax ba tax bi président Macky Sall campagne ba président di campagne ñëw na ba fii ñëw na ba fii mu ànd ak mu ànd ak maître ak maître Alioune waaye itam waaye itam euh, Balde moo tax ma xam ñu bare ma xam ñu bare ci gaañi ci gaañi ba yàlla dogal sëñ Moustapha Mbacke di doomu gaynde Fatma Fatma nekk sa Amérique. Euh, créé benn parti. créé benn parti. tudde ka Nasru. tudde ka Nasru. bi mu ko ñu bi mu ko créé. ñun ñii. ñun ñoo ko nekkaloon Ndar. ñoo ko nekkaloon Ndar. amoon nañu euh, maanaam 3000 personnes. amoon nañu 3000 personnes. yoo xam ni yoo xam ni. si sama loxo la jaar si sama loxo la jaar. Ababacar Balde. Ababacar Balde. ngir ñu ngir ñu ànd ak parti boobu. ñu ngir ñu ànd ak parti boobu. def nañ fi sax ay campagne. def nañ ay campagne sax. def ay meeting. def fi ay waaye gannaaw ga. waaye gannaaw ga. maître Abdoulaye Wade. maître Abdoulaye Wade. moom moo woowaat Moustapha Mbacke. moo woowaat Moustapha Mbacke. boole ko ci boppam. boole ko ci boppam. mu daal di bàyyi. léegi mbooloo mi ñu amoon yëpp. mbooloo mi ñu amoon yëpp nag. ñu jox ko Macky Sall ñu jox ko Macky Sall. te boobu lu tax ma duggoon ci. lu tax ma duggoon ci. mooy baatu Nasrullahi. mooy baatu Nasrullahi. Isa Dia. Isa Dia. Nasrullahi. Nasrullahi boobu. Nasrullahi boobu moom la si dugaloon. boobu ba léegi nag. boobu ba léegi nag. xool ñoo ngi xool. ana kan. moo jóg pour liggéey yonent bi te gis ñu ko ci gaa yi waaye moom mii loolu lay dox kon nag jël nañu engagement incha allah jël nañu engagement incha allah jàppale ko jàppale ko ci projet boobu. te itam ñu ne am ñëpp. ñu am ñëpp daañu ci ànd ak ñoom. ndax suñu soxna yaa ngi nii. ndax soxna yaa ngi nii. ñoo ngi ci biti. ñoo ngi ci biti. te koñ bi itam suñu koñ la. te koñ suñu koñ la. sama yaay ndar ndar la. sama yaay am naa fa lu bare. am naa fi lu bare te loolu lépp incha allah fas yéene nañ ko ànd ak yow waaye li waral lii lépp nag li waral lii lépp nag nga ñëw fi ba tax ñëw fi mi ngi jaar mi ngi jaar ci sëñ Nooru ci sëñ Nooru Nooru Nduur Nooru Nduur sëñ Nooru mi sëñ Nooru mii dafa am lu nu bokk man ak moom soxnaam bi mu amal doom bi mu amal doom muy soxna Maram Bey soxna Maram Bey Maram Bite Maram Bite Maram Bite moomu Maram Bite bi jur papaam bi jur papaam sama papa ko jox werd loolu moo tax loolu moo tax mu xam ma mu xam ma di sama taxawaay di sama taxawaay ma gis taxawaayam mu daan may wax say mbir ma waxee sa mbir bi ma waxee say mbir ma sawar si lool ma it ma ne ko bu ngeen déparé Dakar bu ngeen déparé Dakar pour ñëw pour ñëw danaa fexe ba mu jaar booru sàkkal danaa fexe ba mu jaar booru sàkkal mu wutal ko tudd Ablaye Ablaye Niang mu wutal ko tudd Ablaye imaam la imaam la waaye mi ngi Dakar. ma ma wut itam Paal. ku tudd sëñ Saliou Ngom. woo na ma léegi sax. bala ngeen am bala ngeen dem sax mu ñëw fi. wax na ma loolu. sëñ Saliou jaar nga fa dem. gis naa photo bi. fa tabaarakallaa waaye moom ma boolekaat imaamu Faas bi alaaji rawan alaaji rawan bar ku mel ne yow ñëpp ka war a jàppale ñu ñëpp la war jàppale diine ji dafa tumaranke ku ko xeexal ci réew mi te yow wane nga loolu te yow wane nga loolu sëñ Saliou dafa dafa ko wax de da ko wax ni kii di ñëw ci yow kii di ñëw ci yow du politicien kese de borom xam-xam la bu mu ñëw mukk bu mu ñëw mukk ak sa taaliba la de ak sa taaliba la de borom xam-xam la moom mii mam Baye Niass moom mii maam Baye Niass moo ko jàngal alxuraan xam ngeen ni. bi maam Baye Niass di wuy ji boromam. mën na am atam eggul fenn. ci mbaaxu yàlla. ak yàlla li muy def. Baye Niass moo ko feeñu. di ko jàngal alxuraan ba mu maîtriser ko. kaanum dana fu ma xamee. nit. warul ñëw ci yow rek. te fekk si mu xamoo ci moom dara. fexe naa ba xam ci moom dara te yi ma doon wax yëpp de bu ci nekkuloon dëgg dana wax ak man Mame Baye Niass moo ko jàngal alxuraan kon moom moo jar jox réew waaye président bu mokkulul Fatiha mokkulu salaat Fatiha mokkulu ay saaro saaru alxuraan xamul àtte lislaam nga jox ko réew lu fa xew ci réew yéen la yàlla dogal na yàlla dogal na. bokkoon na ci législative yi passé bokkoon na ci élection yi passé. waaye xëy na booba. waaye xëy na booba. yaatoogul woon yaatoogul woon noonu. waaye tey moom. waaye tey moom. incha allah incha allah. daañu ci dogg ñun ñëpp. ah ñun nag. ñun nag. amuñu lu dul suñu suñu suñu réew. amuñu lu dul suñu réew. amuñu itam lu dul suñu dëkk. amuñu itam lu dul suñu dëkk. amuñu itam lu dul suñu gox. amul lu dul suñu gox bi. man maay imaamu jumaa ji. maay imaamu jumaa ji. waaye waa koñ bi yëpp waaye koñ bi yëpp nag ñoo moom jumaa ji waa ndar yëpp ñoo moom jumaa ji soxna yi kenn ku ne mbooloo la jiite kenn ku si nekk mbooloo nga jiite te bëgg naa nga jàppanteeg ñoom loo mën ci jàppale leen loo mën ci jàppale leen jàppale leen ndax Fatoumata Ndiaye Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi Fouta Tampi ñëpp xam ne APR la ñëpp xam ne APR la bi mu jaaxlee bi mu jaaxlee di jooy di jooy fu ne ma jooy fa kenn dimbaliwu ko moom moo ko dimbali dégg naa gars yi di wax nag. dégg naa gars yi di wax nag. waaye loolu jarul wax. loolu jarul wax. yàlla moo wax ci alxuraan. yàlla moo wax ci alxuraan. taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yàlla nee na. yàlla nee na. na ngeen dimbalante ci def na ngeen dimbalante ci def lu baax. ak ragal yàlla ak ragal yàlla. bu leen di dimbalante bu leen di dimbalante. ci def bàkkaar ci def bàkkaar. ak noono ak noono. nit ku jaaxle nit ku jaaxle. di jigéen boole di jigéen boole sa. amul fu mu jëm amul fu mu jëm jaxasoo jaxasoo ñamu yaakaaroon woon ko gannaaw ñamu yaakaaroon woon ko gannaaw ñëpp woon ko gannaaw ñëpp woon ko gannaaw ndax ay kàddu mi doy ndax ay kàddu mi doy waar moom mu xool moom mu xool ni moom ni moom day dund day dund la leen baam baat la la tolérance day dund tolérance moo moo ko wax moom moo ko wax day baale di jégle day baale di jégle foofu la xool nag foofu la xool nag dimbale Fatou Massa Ndiaye kon loolu nga def loolu nga def sa manin la sa manin la dara nekku si suñu jigéen itam bëgg nanu loo mën si ñoom nga jàppale la waaye ñoom it bu nekk ay politicien mooy ku ñëw nga ànd ak moom ku ñëw nga ànd moom loolu si nañ ci bàyyi xel si bàyyi xel bu baax yen ñi ànd ak moom bàyyi leen yéen ñi ànd ak moom bàyyi leen si xel gis nga démb démb bëggoon naa sax ñëw dogal leen paal bëggoon naa ñëw dogal leen paal dugg ci ay dëkk yu bare si dëkk yu bare bare mais dëkk yu bare dëkk yu bare dama gis ni dama gis ni dañuy dañuy def sans préparation. dañuy def sans préparation. maanaam bu ñu nee diw gi ñëw. bu ñu nee diw ñëw. ñu génne mbooloo mépp ñu génne mbooloo mépp. ñu teertu la teertu la. ku wax boo waxee ñu ne waaw. boo waxee ñu ne waaw. boo leen wanee gannaaw boo leen wanee gannaaw. fekk ànd ñoo yow fekk ànd ñoo yow. te loolu baaxul. loolu baaxul. boo waxee. boo waxee. li nga wax da ko war def. li nga wax da nga ko war def. loolu laa bëgg. laa bëgg. maa bëgg moom. moom mu gestu leen. mu gestu leen yéen seen ay carte yéen seen ay carte bu jotee bu jotee jox leen ko. loolu rek la de. loolu rek ku la amal njëriñ nga ku la amal njëriñ nga amal ka njëriñ. loolu kese la rek la. moom moom lu mu mën lu mu mën. yàlla rek tax te yàlla rek tax. na leen dimbali ay safoor ngi fi ay safoor ngi fi. ay téere ngi fi ay ah ay ay ñeneen ñu liggéey. ñeneen ñuy liggéey ngi fi kii téer la kii téer la. ñu bare topp si ginnaaw ñu bare topp ci ginnaaw ak soxna sële ci ginnaaw ak soxna sële ci ginnaaw. mooy Omar Taay. kële safoor la safoor la. kon kon ku nekk fi. kon ku fi. Ah ak daara ji. ay daara ngi fi. ay daara ngi fi. man si daara laa ne. man si daara laa moo tax ma mujj sama bopp. kii sëfoor la ay sëfoor yu bare fi ne. ay sëfoor yu bare fi ne. jigéen ñi ma la wax. jigéen ñi ma la wax. kenn ku nekk sa mbootaay. kenn ku nekk sa mbootaay. kenn ku xam ne. tuuru plan yi tuuru plan yi. ñu bare leen si yore. ñu bare topp seen ginnaaw. ñu bare topp boo leen amee. da ngay am ndar. da gis nga. ñi yor ci ndar tey ñi nekk ci ndar tey ñi nekk ci ndar tey ji. li ma def ci ñoom li ma def ci ñoom. su ma ko dindi woon lay daanu. ndax ma sàgganee. bi ma sàgganee. ci fan yii paase. ci fan yii paase ma téye sama loxo feeñ na ci. feeñ na ci de. dafa am fu ñu jaar. yàlla rek tax waaye. adduna day màgg adduna màgg dafa am lu ñu yitteel am lu ñu yitteel première première mooy ñu fexe ba suñu diine mooy ñu fexe ba suñu diine ku ne ak diine ba kenn ku ne ak diine ba nga ne nga doxal ko nga doxal ko ni nga ko bëggee te kenn du ko yàq te loolu te loolu gis nañ ko si moom ndax moom nee na ndax moom nee na tijaan la murid la xaadir la laayeen la salafiste la yépp la boole ndax mbiram ndax mi mbiram mbokk la mbiru gaay yi comme na xam ne koo xam ni dañ la tëj prison dañ la tëj prison ak ni mu méttee treize mois treize mois nga taalib téere boo xamante ni quatre mille pass la si yent yàlla Muhammad gars yi wax leen nag kan moo ko def nan wax dëgg nag cofeel goo nga am si ñoom moo tax ma sopp la ku bëgg yonent bi rek bëgg naa la ku bëggul yonent bi ak koo mën a doon bañ naa la yàlla xam na ni yàlla xam na ni. nit yàkkal na ma nit yàkkal na ma. yàkk bu neex yàkk bu bare lool mu ñëw mu ñëw. mu wóor na ko bañ yonante bi mu wóor na ko bañ yonante bi la. ma ne gars yi dem leen ngeen suul ko. ba mu ko yëgee ba mu ko yëgee. daf ma mere. lool sax lool. yàlla yàlla fayul ma fayul ma. bu meroon yem ci rek. bu meroon yem ci rek dana baax. dafa mer pare dima xeex. boo yëg loolu boo yëg ma yëg loolu. dafa xëy rek. yàlla nekk kaay noppalu. mënoon na fi yàgg lool nag. mënoon na fi yàgg lool nag ku bëgg yonent bi nga di xeex lu ne ngi si yow da nga bëgg yonent bi bëgg boobu nga bëgg da nga ko gis incha allahu rabbi sa liggéey bii bëgg nañ daal nga jàppanteeg waa koñ bi ñu jàpp la département Ndar bi commune Ndar bi boo si ànd ak nooru mii dana dox de maa la wax loolu kii xam naa ko bu baax. gars yi soxla nan ko moom mi xam naa ko bu baax soxla nañ ko lool dama ne ko àndal nag Thierno Alassane xam naa xel ni doo moroomu gars yi xam naa loolu gars ñu bare bare bay sopp yonent bi rek te na leen waaye ku sopp yonent bi ku na yonent bi ànd ak moom ànd ak moom sens la àdduna àdduna tey la tey la ak suba ak gannaaw suba nga ni démb démb bokk tey ak gannaaw suba démb paase na ñoo ngi si tey suba nag suba yàlla la sa alal lu mu bare bare boo nelawee fàtte nga ko lu néeg yi bare bare benn néeg ngay fanaan lu soxna sax rafet rafet rafet boo jëfandikoo kenn subaat bu lekk gi neex neex boo ma see tuuti pare nga sa kon nag fexeel ba fexeel ba yàq sa diine yàq sa diine ak sa àdduna ak sa àdduna ak sa bàmmeel ak sa bàmmeel ak sa alaaxira na nga ko sóoraale koy àndal koy àndal na te moom mii te moom mii loolu la wane ñu sawar ñun ak ñun àndal ñëpp fas yéene ànd ak yow waaye ci ndar gi bëgg nañu nga dimbali si nooru mii ak képp ku ànd moom ndax nit ñi xam nañ ko te ñun xam nañ ko loolu loolu daal lu ma lay conseillé la di la ko ñaan di la jaajëfal nag ak ñi nga àndal ñëpp di la ñaanal di wax ne itam suñu chef de quartier di wax ne suñu chef de quartier délégué de quartier baa ngi nii eh, quatre heures dafa am réunion lépp lu fi état di def si moom lay jaar bu wàllu dispensaire bi ak li ci aju yëpp moom moo ko yor moom itam kilifa la encore lu bari si loxoom lay jaar ñoom ñi lu tax ma woo leen dañ nekk nit ñu am njëriñ si koñ bi am yitte lool lu ñu gis mu yàqu daan taxaw pour mu defaru ñoom it dama bëgg ñoom itam ñu bàyyi la xel bu baax jàppale la yow itam Cerno ah, eh, Idrissa Sow papaam sama sëriñ la jàng naa si papaam boroom xam-xam la. naan sax bu fekkee demago bu fekkee demagoo. danaa fekk ba ngeen toog moog papaam. kilifa la Thierno Aliou Sow. jumaa ji jiite na fi juróom-ñetti at. Ah. jumaa itam. ki nga xam moo ko samp. ki nga xam ne moo ko samp. moom nga doon siyaar léegi. mooy El Hadj Rawane mooy waajuram ah, loolu sax léegi imaam nee na mi ngi jaajëfal mbooloo mi yëpp mi ngi jégalu si wax jetam kii mooy alaaji ba kii mooy alaaji ba Baye Wilane Baye Wilane Baye Wilane sa Kaffrine mooy seen sëriñ moo nekk si daara ji jàngal xale yi ak El euh, Hadj euh, Malick Ndiaye euh, Mame Rawane mi ngi ne. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم sadaqallahul azim jërëjëf waay sukkuran ah jërëjëf bi wa taala julli ci gën ki mbindéef rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sant suñu waajur sant nag imaam jaañ mii mi ñu indil Cheikh Alassane Sane mii ndax ñun xëy na dégg la ñu am ci moom a di ko gis nii rek mais tey jii laay doog xam tey mooy kan ndax li fi imaam Diagne wax ci moom man de tey laa ko doog a gëm tey laa ko doog a dégg te loolu xaw ma ko woon ci moom donc muy nekk nitu yàlla nekk nitu diine gëm bëgg alxuraan sopp rasulaay sallallahu alayhi wa sallam kooku wax digaal gan ku am gan gu mel noonu da ngaa war a bég ndax ñu lool rek la ñu am gannaaw yàlla ak rasulaay suñu diine la ñu am te diine ji nag képp koo xam yaa ngi ci digg di ci sonn am naa yaakaar ci nit ñi war nañ laa gën a gën a jàppale ah ñun nag ci wàllu quartier bi ñun yàlla dafa def mu dénk ñu mbirum santé maa amee commité de développement sanitaire. bu poste de santé bu bu quartier bi. ak benn quartier bi di Sor Diagne. bi ma ci amee jafe-jafe tamit ci moom mi laa ñëw ndax xam nañu ñu réew mi ñaar ko yor ci li ma jàpp muy santé éducation te gis nañu foofu gouvernement bi da ci xaw a sooxe te loolu mooy développer am réew ñaar yooyu ñoo développer am réew te bi ma koy wax mbir mu santé dafa ni ma bu àjjuma jotee yow ak délégué da ngeen ñëw fi ngeen julli àjjuma. mbooloo mi yëpp toog ngeen wax ak mbooloo mi ci wàllu santé ma xamal leen ni leen bu dee wàllu diine ji boo ñëw ci jàkka ji si diine mën naa defaru mais bu dee ci wàllu sa wér-gu-yaram pour nga mën a jàmm yàlla fokk fa ngay fajoo mën a baax moomuñ jàppale bi ñu defee suñu waxtaan fii mbooloo mi dañoo jóg daal ñu fekk ci dispensaire bi ciment lu nekk ñu jox ñu ko ba ñu defaraat suñu dispensaire ba mu baax ba nit ñi léegi mën mën fa dem donc ku mel noonu ñun bu ñu woowee ci lu mel nii parce dañuy sawar pour ñëw jàpp ci surtout na mu woo koo xam ni nag ñun amuñu lu dul suñu diine te moom ci diine dong dong lay dox te diine nag tant que yoroo ko comme ni ma ko waxee léegi mënoo yore am réew mënoo yore am réew tant que amoo diine nag mënoo yore am réew réew moom surtout réew Sénégal yi nga xam diine dong fi nekk loolu dong moo koy doxal donc ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal suñu borom yàlla suñu borom bi mu sàmm la yokk sa mën-mën yokk sa kattan ak yokk sa yéene ci réew mi ba di nga bëgg ci réew mi yàlla suma defal lak ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf waaw ñeen di nuyu yéen ñëpp ah, di dalal sunu ngan gi baax a baax di jiital si nuyoo bi euh, Oustaz Madiagne di si tekk suñu papa mooy suñu papa di tekk délégué di tekk secrétaire général de poste de santé bi gannaaw loolu ñu ngi wax ni ñu ngi leen dalal fii nga xam ne mooy Tableau waalo ah maa ngi wax na si turu association bu ñuy wax Tableau Walo ak xar kanam bu bees ñu si nekk ñëpp di ay jeunes yàlla def démb oustaz woo ma ne ma dafa am gan gu ñuy war a sees waaye mun ba ma waxee xaw ma ko mu envoyé ma ay vidéo ñu dem si youtube bi ñu def ay njàngat mën naa ne bi ma doon seetaan sax mooy plateau bi mu doon def ak Pape Ngagne Ndiaye dama doon wax si LGBT bi gannaaw loolu tamit dégg naa mu wax beneen wax si politique mu ni moom kat politique bi muy politique day politique pour njëkkee si xale yi nga xamante ne que amaguñu carte d'identité mu njëkkee si ñooñu pour defar leen ndax tamit yaa naa réew ko bëgg liggéey da nga si xale yi ndax jeunesse bi ñoo yor léegi réew mi ñun nag politique mën nañu léegi presque suñu métier ndax lu bëri si la ñuy yëngu di wax nag tabawaala mu ngi nii li fi nekk du dara ku fi ñëw al ñu ngor ak diine ak teraanga ak li nga xam ne que li ngay wax dëgg si yow daañu la jàppale ba mu ma sëkk li ñu bëgg mooy képp koo xam ne ñëw na fi rek li ñuy waxanteeg yow mu nekk loo xam ne di nga tëng su leer muy ngor jom fula faayda ndax ñu ñëpp loolu la ñuy yaree. Thierno nag ñun ñun ko baax a baax c'est la première fois ñu koy gis waaye li ñu imaam Madiagne wax doon ñu ndax ñun xamuñu ko si caaxaan xamuñu ko si lu ñàkk fayda man su la am fulla su la am fayda laa xamee sa yaakaar naa moom tamit loolu la xam si man ba bi ñu ko waxee mën la njëkk woo ni ma ah am naa gan gu may seesi xam naa li ngay wax lu nekk dëgg lay doon si yow man nga mën de bis boo ko xoolee yow ba mu leer na kii doy na la bis boo waxee ñu ànd moom daañu taxaw pour ànd ak moom ndax yaakaar naa école bii nga xam ne moom mooy a Sadaga bi am 15 bureau fekkee euh, élection yi passé nguur gi ñàgg na ka yàlla ak ñun la génn si bu am solo ndax yaakaar naa koñ bi ñoo taxaw taxaw boo xamante ni que dañ ne carrément école bi nguur gi dootu ko dootu ko gagné daañu ko sanctionné ndax fekkee li mu waxoon ak ñun def si dara dañuy taxaw ñu sanctionné ba mu xam ne ñun ñii lu waxoon def si dara keneen ku ñëwaat tamit waxaat ñu dañuy bind ñu teg soo demee ñu toog ab diir gis ñu li ñuy wax def nga ko dañuy jël ñu teg fële te yaakaar naa fii exemple am na fi ñaar mën naa ko jël benn muy Mansour fay bi mu ñëwee fii ñoo ko dalal ba muy gañe Ndar grâce ak ñun la ak Imam Madiagne mii ñoo tax mu gañe Ndar beneen ba mu naa jël keneen si élection yi passé muy Pape Djibril Fall ba mu ñëwee fii ñoo ko dalal ba mu amee problème mu 1000 carte d'identité yaakaar naa lu mu dee dee 500 carte d'identité man maa ko jox kon yaakaar naa li ñuy wax fu leer ñun lañ ko teg loo xam ne dañ koy làmbaatu fii nag mooy Tableau Walo li ma waxoon léegi rek jom moo fi am fulla fayda liggéey jaam yàlla ñaanuñu kenn abuñu kenn ku ñëw fekk ñu si li ñu gëm dañuy ànd ak yow ñu liggéey ku fi ñëw indi fi leneen gis ñu ko si yow dañ lay tege neen di tege Diène na ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la wax na kàddu yu ñu la wax na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ngir yàlla bul dem fàttali sa ginnaaw ndax nit ku nekk kàddoom la am bis boo jàppee ñun coloré te li nga wax nga sàmm ka incha allahu taala daa gis résultat ba nga xam ne que ñun lu ñu lay wax nii lu ñu gëm la te Waalo nag dafa ne nekk euh, quartier boo xam ne dafa dellu ginnaaw muy si politique bi daf fi dellu ginnaaw muy si as assainissement yi te Waalo si dellu ginnaaw sécurité amuñu ko suñu poste de santé bi fi nekk suñu papa ñoo si nekk di góorgóorlu di di di soox lu nekk ñu def kasi ndax yàlla naa poste de santé bi a taxawee dem fenn di ko yalwaanal si ay jumaa ak du wër di ko kedal si koñ bi ndax yàlla naa poste de santé bu ñu demee ba xam ne que benn nit nekk fa boo xam ne état mu njël di ko fay en di ko fay loolu doy na waar te suñu poste de santé bi ñu kese moom lañu am amuñu amu maternité bi fi nekk baaxut sunu sunu miir dara baaxu si sunu école bi kazaalika dañuy boole ñeent ba ban ñeenti nit lañ leen boole ban si xale xale bu war a jàng ba boole ñeent est-ce leen di jàngal mun a toog ba jàngal leen normal kon yow yaakaar naa problème yoo xam ne bu buñ si jàppalee dina baax sunu daara yi tamit ka fii nii jàng la ñu am xale yi ñu ngi fi si daara ji nam nabi waaye du kenn fekku leen si téere kenn fekku leen si aliwa kenn fekku leen si benn matériel te ku ñëw am soxla ñaana la fii ngay ñëw ndax jumaa ji am na lu fi def amul ku fi su ñëw sukkusee oom ñaan dem te yàlla def ko amul fekkee amul fii nañ ma seede am politique ba politicien bu fi mas a ñëw su ko fiisee oom ñu ñaana la si yàlla nga dem te la wax gisoo ko jël naa si léegi ñaari exemple suñu yaay yi kenn kenn du ñoom yaa naa ay jeunes yu mag lañ lañ yor kenn mosu leen si fekk ñoom ñooy jël di daan seen juróom dërëm seen fukki dërëm di ko dajale ku si feebar si lañ lay jóobu hôpital ku fi faatu si bi si lañ lay taxawu ku fi am xew ñoom ñu ñoo dajale seen ay dërëm taxaw la kon yaakaar naa ñooñu ku leen jàppale as tuut ñu taxaw taxaw taxawaay bu dëgër kon nag nañu del si ngir yàlla ñu delloo si xel yi ñu xam ne politique du ñëw wax rek dem politique dafa ànd ak jëf ak sàmm coloré surtout coloré politiciens yi bëri li na jëf mooy ñun du ñu sàmm coloré te yaakaar naa coloré moo njëkk moo mujj lépp lu ñu wax ak nit ñi nañ ñëw fi ñu sàmm coloré gi loolu rek moo am ndax ku nekk ki la yëg rek nga nga xam ki la yëg rek moo la sonal mais ku la yëgul doo ko yëg ñu ngi jégalu baax a baax si kàddu yi di wax ni kàddu ndaw la su dëgëree tamit nañ ñu euh, <laughs> comprendre rek xam ne bëgg mu baax la moo tax ñu wax ñu ngi jégalu baax a baax si kàddu yi. ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam imaam Madiagne maa ngi lay nuyu di la ziyaara. di yeesal kóllëre sama diggante ak yow kóllëre gu lalu ci cofeel cofeel ju mat sëkk ndax yow yaa ko junj léegi ci biir wax laata may tàbbi ci sa ëtt wi nga gëstu ba xamee ni ma taxawee ma sant la ci nag bu wér di sant notable yu mat yi fi toog kenn ku nekk ci kàddu yi ngeen fi yëkkati ak li ñu wane cofeel ci seen diggante yow ak ñoom ak cër gi ñu la jox ak yaakaar gi am seen diggante léegi Omar bi mu jëlee kàddu damay dalal sa xel ànd bi ma bëgg ànd ak moom du ànd pour mu dimbali ma ndax ànd dimbalante yooyu moo indi ka ñu dimbali ba mu egg du geestu te man fas yéenewu maa geestu kenn àndu nawle laa bëgg ànd ak moom d'ailleurs su ma ko imam mayee cabinet bi ma yor ci ndakaaru soo ma ko mayee dama ci bëgg tabb conseil special waaw lii laa bëgg waaw wax dëgg yàlla ñu àndandoo ko nag ba biir pale bële incha allahu taala su boobaa moom xam naa léppam fii la su boobaa gestu du am ndax moom su boobaa du am audience ci man du ñu wax ni tam bi mu àndee ak yéen ba ngeen eggee gisutu leen parce que koo àndandoo duggandoo loolu du ca am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga tudd beneen bi mooy damay am soxla ci moom jamono suñu jëlee réew mi li ñu bëgg njëkk def mooy changer premier paragraphe u hymne national du Sénégal parce que ñun mun suñu lépp nekk yàlla mm-hmm. te suñu yooyu yàlla feeñu ci du dëgg du yoon mm-hmm. ma gis ñu wax ne pincez tous vos koras frappez les balafons ma ne ñun daañu proposer askan bi wax leen ne bëggatuñu ñu pincer les Cora bëggatuma ñu frapper les balafons li ñu bëgg mooy jiital ci wax ji gloire à Dieu lañu ñu bëgg jiital moom mi nga xamante ne moo ñu sàkk moom ñu fa ñu daan tàmbalee hymne national bi waaye nag référendum la jëm nit ñi xool ndax li ma wax yanu na maana mbaa yanuwul maana États-Unis soo fa demee seen constitution yàlla lañ jiital jël seen xaalis bind ca kaw in God we trust yàlla lañu yaakaar kon nag massa ñun ñi nga xamante ni suñ dund lépp bu wér yàlla la loolu lañ ko nar a tàmbalee incha allahu taala beneen bi imam damay dégg lu bari nit ñi di wax ñaari mbir benn bi ñu wax ne première dame ñu wax ne ndeysaan ku bari yërmande la ku mën a dimbalee la ma ne dimbal bii alalu kan la sunu alal la parce que wax aussi dafa yanu maanaa ñun dimbal seen dimbal moom ak président de la république mi ngi feeñ bi ñu yoree réew mi te suñu ay cotisation la donc dimbal amatu fa moo tax dama wax ne bis bu ma yàlla dencee réew mi sama soxna du jiite fondation ci réew mi ndax dafay yokk corruption ci réew mi loolu mooy benn beneen bi mooy président de la république dañu ko fay alal bu takku pour mu mun ñu liggéeyal donc moom warul xaar ci ñu ñu sant ko li mu war a xaar mooy wàññi ay nalawam wàññi ay tappaleem te jublu ci liggéeyal ñu loolu lañ leen di xaar waaye malheureusement réew mi bi mu so saxoo ba léegi 1960 ak léegi gis nañu ne ñi fi jot a jaar ñëpp ñoom ak seeni mbokk ñoo génn ci ndóol mais ñun askan bi ñu ngi des ci ndóol ba tey kon nag programme bi doxul ni mu war a doxee benn waaye daf ma laaj ne ma yow de pourquoi mënoo woon ànd ak président Macky Sall ndax coono bii nga nekkee. Mhm. coono dem ci nit ñi coono dem ci naaj bi. Mhm. ma ne man dafa am ñetti baat imam yu ma xool si diggante yàlla ak yonent bi. bis ma dégg sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne yaa yaa Muhammad. Mhm. taxta arshu rahman muy benn. yaa Muhammad. ishfatu shafa. wasal toxta. ma xool baat yi ma ne de bis penc de ku fi nekkoon ci kaw suuf ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa nga dem ca marché Charlie ba ni ko Macky Sall defee woon ëllëg war ngaa tiis sa bopp ci kanamu sunu boroom ni mu mel moom ci ci yonent bi wa taxsha naasa wala wa xaqu an taxsha lu leer la sunu boroom wax ci digganteem ak ak ak yonent bi sallallahu alayhi wa lii moo tax comme yàlla def na mi ngi waaja a matal fukki at ak ñaar ñoo ko dénkoon sunu alal ñun askan bi jot na moom moo am élégance delloo ñu def na fukki at ak ñaar seeni dund soppeeku na Mansour fay moo fi nekk maire laata Macky Sall di jël réew mi amu fi woon kër gu bakkane jii mu fi am dañuy waxante dëgg te yàlla tax léegi nag am na ko am na yeneen yu mu mën seeni yëf la waaye man incha allahu taala su ma waree remplacer Macky Sall balaa muy dem dina am lu ma coppeet ci constitution sénégalaise muy le préambule pour mu yóbbaale ko moom ak soxnaam ak ay ministre am ñu gën ko jàng mokkal ko ndax liggéey bu mag mi ngi leen di xaar su ma su ma jëlee réew mi muy engagement patriotique lañ ca bind du ma tëj kenn kaso nag ndax kaso li mu nar a def ci réew mi mooy soo duggee sa soxna wuti ay nit ci biti sol leen ci ay kaar ñu ñëw palais de justice taxaw fa yëkkati libéré libéré bu dul jeex nga dem ba duggaat ci xolu askan bi nga tooñoon loolu duñu ko def waaye nag daañu dox guddi ñëw fekk la fa nga toog alal ja jël askan bi moom ko suñu gisee hôpital bi nekk fii wala mu nekk Sédhiou mbaa mu nekk fa boor yi Farafeñe mbaa mu nekk Euh, fële ca Kolda mbaa mu nekk fee ca Fuuta daañu la wax hôpital bi manqué na lii ak lii ak lii ak lii jox naa la ñetti weer nga matal ko ak ñoom ñëpp nag loolu moo nar a xew ci réew mi juróomi at yi du wax xàtt ci ñoom de waaye daañu bokk ci ñi ñàkk pour askan bi génn ci ndóol bi loolu principe bu malal la duñu tëj kenn kaso nag waaye kenn ku ne naa ne demal nga toog nga déglu ñu kenn ku fi am alal yaakaar ne soo génnee ci nguur bi mën ngaa nag léegi organiser sa bopp li nga namoon yëpp nga def ko da ngay nax sa bopp fii ngay toog liggéeyal askan bi ñoom ñëpp nag fas yéen nañ ko beneen bi mooy TGV bi ñu bëgg a départ fii ci Saint-Louis li ci nekk ci emploi muy toll ci cinq mille emplois fii laa bëgg mu départ Saint-Louis ndax dafa am lu ma yëkk ci Saint-Louis ni ñu ko nar a defee du jaar ci financement wu état mhm. moo nar a relier soo déggee ñu ne TGV du train bu ndaw bii di daw mhm. train à grande vitesse la mhm. nga mun a xëy fii soo neexee dem Touba soo neexee dem Tivaouane soo la neexee dem fa Medina Baye soo neexee dem fanaani Ziguinchor le lendemain nga yeewu ndekki si Saint-Louis TGV moo ko mën moom la ñu bëgg a tàmbalee fii mu daw foofu incha allah parce que dañu war a dekkil l'emploi fii ci réew mi te moom mii kat imam def ci nar am cër bu rëy a rëy rëy dinaa la présenter projet bi ci fan yi ñu jëm ndaxte bëgg naa ñu àndandoo imam ba aljana incha allahu taala bëgg naa lépp loo xamante ni dañu koy def jëm ci pale bi ñu àndandoo ko incha allahu taala maa ngi lay sant sa taxawaay bi ci des na imam ma bëgg nga dalal sa xel li jóg yi ma jóg di ko dox ci réew mi parewuma pour jaay ko kenn maanaam waxtaan ak Macky mhm. amul li ñu war a waxtaanee mooy mu dem ñu ñu dugg mhm. lii rek la amul beneen ndax su ma ko bëggoon mhm. caméra lay waxee damay am député ci élection yi ndax ndax 48 heures avant ñuy proclamer résultat yi dañu ma wax ne naa leen jox garantie ne ñoom laa àndal ñu jox ma député ma ne ànduma ak yéen que bi ma génnee waxanteeg askan bi dama leen waxoon ne Macky Sall waratul am majorité à l'Assemblée nationale caméra lay waxee te joxoon na ma audience deew ma mhm. yàlla dëgg la bëgg parewu ma aussi pour jébbal ko opposition classique bi mhm. li ma bëgg mooy ñu dem vers de profondes mutations ci réew mi ñu ne incha allahu taala te taxawaay boobu laa ci am imam bi ma nekkee ci kaso bi laa bind téere mhm. tuddee ko vision mu ànd ak téere yi ma bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaa la wan lépp benn par benn incha allahu taala maa ngi leen di sant bu wér ci accueil bi d'abord imam maa ngi lay santaat démb fi ma jaar yëpp fenn fu wax nañ ma laataa ma fay ñëw woote nga fa wax ñu dalal ma dalal nañ ma comme ni ñuy dalalee buur ngir sa jëmm maa ngi la ciy sant sant bu wér moom mi nag rawaan di sa doom bis na tey nekk naa bàyyam incha allahu taala maa ngi sant ñëpp di leen gërëm alxaqu min rabbikum fa man chaa fal yuxmin wa man chaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf maa ñu ngi lay dalal di la ñaanal jàmm nga fekk si suñu imam bi ma jaañ mu woo ñun ñëpp ñu nga xam ne ñu ñoo nekk fii ci quartier bi ñu ñëw fi teew fi teewul fi jigéen ñëpp macha allah jigéen ñi nag def naa foo war foo dem sax boo moytuwul kàddu gi benn lay doon jigéen ñi sonn nañ sunu doom yi sonn nañ sunu njaboot yaa ngi nii amulu liggéey yaa ngi yor seen ay diplôme taxawaalu amuñ fu ñu xëy njaboot ku ko jàpp ku jàppale njabootam rek jàppale coono boobu la jigéen ñi fi toog ñëpp tey coono boobu la ñu am kàdd bi benn la coono boobu la ñëpp am ñu bëgg nag ku nu mën dimbale jàppale ñun ñun ñu defal dara mais suñuy doom suñu njaboot yi nga xamante ne tey ñu ngi jàng yore seen ay diplôme amuñu fu ñu teg seen tànk du boo leen gisee liggéey yu misérable yu ñuy liggéey te seen diplôme passé foofu ñu yor ay diplôme yoo xamante ne tey mënoon nañu toog ci ay bureau di liggéey comme il faut loolu lañuy ñuy ñaan yàlla ñun tamit suñu njaboot gi ku leen ñu ci jàppale rek ñun jàppale nga parce que ñun amatuñu kii suñuy doom rek lañu la ñu yaakaar dëkk bi metti na metti boo xamante ni jigéen ñi kenn noppalootu fu ne waaye ngay bay fa sa bopp fu ne ñi ñaa nga fay bay seen bopp dugutu lu ñu am jamono bi metti na te day gën di metti te ñun li ñu gis dañ ko xamul ndax bu fekkoon ne dañu li ñuy wax naan tey nguur gi bu ñu xooloon yenn place di fa teg suñu njaboot bu ñu doon xool l'homme qu'il faut la place qu'il kenn du sonn waaye defuñu loolu moo fi am looloo manqué ci Sénégal looloo ñu sonal coono gi ñu nekk yëpp looloo ñu ko looloo ñu ko teg ñuy ñaan yàlla nag ah comme ñëw nga fi ah yow nga gisal sa bopp. gis nga jigéen ñaa ngi nii toog ñoom ñëpp ñu ngi nii toog même problème la ñu am coono rek la ñu nekk coono kese la ñu nekk ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci la ñuy fanaan ñuy ñaan yàlla nag ku ñu ci mën a jàppale parce que ñu ngi léegi ñoo ngi laaj sa programme ñoo ngi laaj xale bu góor mi ngi ko dañ jox programme ba ñu xool programme bi ba ñu tam ñu mën a xam waaw ñu ngi nag imam mi suñu imam la moo ne ci quartier bi di ñu jàngal du ñu wax li yàlla wax lu bi di ñu teg si yoonu siraatal mustaqiim bu ñu woowee danañuy danañ ko wuy si incha allah waaw ñoo ngi yéggalu nag ci kàddu yi lu ci dëng man la. salaamaaleykum mbooloo mi ku na ne ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant sunu gan gu baax gi ñu ngi lay teral di la jox sa wàccuwaay xam ne tey nag kilifa seet si na kilifa te nag sunu gan gi du ko ndaw de doo ko ndaw yàlla na yàlla lafal cat. waaye seet si nga ne kilifa kilifa quartier bi mi ngi mooy ma jaañ mooy sunu ilimaan moo ni yeesi yàlla nee na yonent bi nee na ku ñëw si këram gi wax ko soxla tu la laaj dara te lum la defal nag am na lu ko yàlla may man am na fu ma jaar ak baayam mu ñaanal ma si guddi ga la loola am am na fu mu jaar ak sama goro ñaanal ko si guddi ga am kon nag oustaz Madiagne du ko ndaw yàlla na ko yàlla lafal cat koñ bi nag benn la ñun suñuy mbootaay rek la ñu yor ak suñuy sëy moom mii mooy suñu góor tey bu nu soxlaa ñun ñëpp a ñëw amul kii amul kaa bu ne oustaz ma jaaña woote tey tey jii ñëpp ay ñëw amul kii amul kaa te lim la wax nag dëgg la si yow moom ndax ba oustaz dafa ànd ak sama borom kër lim la wax léegi si néeg bi ba sama borom kër génn àddina moo doon bilaalu jàkka ji sele mii di wax nii heure bu oustaz dee gàmmu fii nagam bi bu kay rey danaan sele damal nga wooyu waa kër Baye Talla mu ànd ak moom bi ñëwee dana jox sama waa kër ndawal dana leen jox dépense te mënoon nga ni baytaale nekku fi oustaz di borom kóllëre ma di ko ñaanal yàlla loo sumb yàlla na nga ko daan ñii nag ginnaaw yàlla ak yonent bi toll nu nii te da nga si xam dara ndax xëy na ñu bari ñoom fekk nu sa wax si néeg bi waaye bon fekke naa ko maag nu ñaan ñi la nga wax sa néeg ba fekke nan kat bu soobee yàlla bu ñu demee plan talaata danaa leen leeral lépp bu ñu demee tuuru altine danaa leen leeral yëpp ndax maa seen jëwlu tuur kon nag yàlla na la yàlla eggaleel li nga wax nag dal na xel bu baax yal na yàlla mottali li ami jàlla wax mii rek sonn nañu suñuy doom sonn nañu ñun ñëpp suñuy doom am nay bac am ay diplôme mënuñu dara ñenn ñaa ngi sa fure ñenn ñaa ngi sa sareet ya mënuñu dara ginnaaw yàlla ak yonent bi dénk nañ la suñu bopp dénk nañ la suñu njaboot li nga yóotu yàlla na nga ko jot boo si jotee rek danaan am dara yàlla yàlla def jàmm jërëjëf. maa ngi leen di nuyu di kàddu yi fi jip yëpp tàmbalee ko ci imaamu jigéen ñi nga wax léegi dégg naa kàddu yi ma ma rafet rafetlu ko ma xam ne it ki ki wax léegi intellectuel la mettre euh, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut vous avez parfaitement raison benn jukki rek laay wax daal di continuer ci soxla yi mooy li ma naral jigéen ñi ci réew mi incha allah taala nga xamante ne dafay révolutionner condition jigéen ci Afrique incha allah ba bëgg ngeen ñaanal ma ci nag yàlla may man ñu tàbbi ci présidentielle bi am ci ndam parce que ci premier mois yi loolu mooy njëkk li ma nar a taxawal mooy la banque des femmes maa ngi ci décidé dugal ci cinq cent quatre-vingts milliards de francs CFA jaare ko ci aw xaf le waqf le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde loi bi voté nañ ko assemblée ba promulgué ko en 2015 mais elle a été mal rédigée ma am xalaatu defaraat ko ci la bokk aussi waa ci la bokk waa ci la bokk wallaay <laughs> wallaay macha allah ci la bokk ma ma am xalaatu defaraat ko ngir tàbbal lu mel noonu ci réew mi 2000 milliards de dollars mooy tourné ci fonds boobu ci àdduna bi am naa ci nag ay démarches yu ma ci tàmbalee def ba suñ jotee réew mi rek dañu koy tàmbale ni ñu ko nar a tàmbalee mooy dañu nar a supprimer la mairie de Dakar suñu ko supprimer batiment bi nga xamante ne mooy moo fa la mairie de dakaar nekk ñu génne ña fa ne yeesal ko ba pare def fa la banque de Dakar de des femmes BDF ca ginnaaw mairie bi dafa am benn esplanade bu fa nekk. esplanade boobu dañ fa bëgg def benn tuuru cinquante étage jagleel ko jigéen ñi maa ngi ko nar a tuddee tuuru ndate yàlla ah, témoignage la xewoon ca ndeer li ma ci jublu nag mooy li ci ëpp solo tey ji mooy département bu tudd Allo Soxna May la tudd boo xamante ne bépp jigéen bu nekk ci réew mi dootoo mukk jot financement ba pare di perte ndax da am formation ba pare ñu encadré fi ngay dugal sa xaalis ba dootoo perte li koy def nag ay uti intelligence artificielle la ay algorithme la yoo xamante ne maa ngi waxtaan ak borom yi xam-xam yi moom miin loolu nga xam ne benn jigéen dootul investir di perte benn jigéen aussi dootul yeewu fajar ñu ngeen di yeewoo di dem ci géej gi di dem di jéem a dëbb daaxee ngir am dara ndax waaw waaw déedéet déedéet amul tul dootul am benn banque ci réew mi bu tàncati benn jigéen ndax li tax ma jël idée bi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xunt wi imaam moom a gën a xam li may wax seetiwul benn góor si soxna Khadija la dem daal di ko wax ne zammilu nii waaw mu mu sànq am na lu mu ko wax wallahi ne ko ne ko ne ko li nga gis dëgg la ndax yow doo wor yaa mun a téye nit wax ko wax yu rafet dalal ko loolu nag ngir mu am il faut que jigéenu suñu réew mi am ci lu dëgër lu ñu téye te loo leen téye yéen delloo ko ci njaboot moo tax ma li may sàkku ci yéen ci ànd bi ñu war a ànd mooy ngeen ñaanal ma yàlla ba ma ma tàbbi ci lii ñu jëm incha allahu taala su ma ci tàbbee sama principale occupation mooy jigéen ñi ak ndaw ñi dekkal Saint-Louis nag bokk na ci wax naa ko imaam léegi ak TGV bii ñu bëgg lancé def ko ci réew mi fii ak ay fan yu néew di ngeen duut baaraam li ma bëgg def parce que dama koy def ci vidéo yónnee ko Sénégalais yëpp ñu gis li ma nar ci réew mi incha allahu taala imaam nag ma yeesal cant gi ci moom ndax man démb laa dugg ci ndar sama papa fii la juddoo mooy Abdou Majib Sène ngeen cay dégg sama yaay fii la baaxoo aussi ndax mi bokk alaaji tay bu ja fii nii donc man mi waa Ndar la li tax ma yeesal cant gi ci yow mooy démb laa fi dugg maaye fi ma dem yëpp dañ maa jàppe comme buur ndax moo fa woote laataa may dem te boobu gisantee guñu moo tax ma ne damay yeesal cant gi ci yow beneen bi man maa jël décision ne dama koy def sama conseil spécial ci sama cabinet ci dakaar ngir maak moom ñu ànd liggéeyandoo liggéey bi demandoo palais te te li ma nar imam mooy suñu fa àggee it duma la bàyyi dama bëgg téye la foofu ci biir pale bi ñu àndandoo incha allah taala wax dëgg yàlla wallaay lii sama yéene la waaw waaw wallaay wallaay waaw waaw wallaay wallaay wallaay waaw yéene yéene bi waaw yéene bii laa am yéene bii laa am te kenn rek laa ci rek laa ci jël seede muy sunu borom sunu borom ndax lu lu lu mel ne géej soo ci jotee ku yor kaasu ndoxam bëgg a bëgg a tànk mun nga ko bañ a xañ parce que président loolu lay tekki mooy nga mun yàlla dimbali la nga toog place boo xamante ne ci nguuru yàlla yaa ngi koy wax léegi qul illahuma malikal mulki tuxtil mulka man tasha wa tanziul mulka mim man tasha wa tuxizu man tasha wa tuzillu man tasha innaka ala kulli cheyin xadir loolu yaa ma ko gën a xam donc maa ngi leen sant nag di leen gërëm imaam nee na naa leen tee dinaa leen tee incha allah waaye yéen tamit ngeen ñaanal ñu yàlla ci barke ci barke baayam jaar nañ fa léegi ziyaar ko ngeen ñaanal ñu sunu borom li ma yëg ci ndar yàlla rek moo ko xam te xam naa ni it lu bari dana xew su ngeen ci jàppee incha allahu taala waaw yàlla na yàlla doolu jàmm maa ngi leen sant bu wér a wér a wér suñu mbokk yi géwal yi nag ñu ngi toog di ma di ma def signe waaw waaye ñoo ma nar a gunge incha allah waaw waaw waaw wax nañ ma léegi signalé nañu siñale nañu sallallahu اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم والخاتم لأسماء الحق والهدي لصراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره العظيم سادا تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتحصير وتكن بها ولي ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير آمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin yàlla fagal la macha allah bàyyi bàyyi baal ci dafa la ah la bu génnee bi dal ma fagal fagal yi ma mag waaw sama sama waaw tey ah, jox jox naa jigéen ñi benn affaire waaw waaw géwël yi xam naa ma jox leen dara waaw attention Sinna over there. mooy sama yaay amiin amiin jërëjëf. amiin am na solo. amiin amiin amiin kontaan naa bu baax kontaan naa bu baax macha allah jërëjëf. wallaay wallaay jërëjëf maa ngi ziar bu baax a baax. nit ku baax la ku sopp yonent bi. wallaay wallaay sopp yonent bi. voilà amiin amiin jërëjëf. Sen de gör ben wala wala man tamit loolu laa téye loolu laa téye imam fii sa béréb la jërëjëf waaw jërëjëf li nga bëgg waaw loo loo bëgg di seet na nga waaw jërëjëf kontaan naa jërëjëf kontaan naa kontaan naa kontaan naa kontaan naa bu baax a baax jëf jërëjëf loolu bëgg maa incha allah ci kanam incha allah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 asalaamaaleykum monsieur le président ñu ngi lay wax bisimilah di la dalal bu baax di naan suñu borom defal la jàmm ak salaam di am kontaan te loolu. daanu masa di am kontaan te loolu ci teew bi ngi teew ndaxte koy dégg te gisoo ko boo ko teewee da lay gën a motivé waaw daanaka nag mun la xamee ñi ñoo tax. muy ñii Ousmane Ndiaye ak Alain Ndour chaque jour dañuy ñëw di waxtaan ak ñun wax ak ñun ci boon dañu bokkoon benn liggéey di liggéeyandoo ku nekk xam ñun suñu bokk man su nekkee di liggéey bu gisatuñ ci résultat bu ñu soog ñu ñëw waxtaan ak ñun lépp tax a jóg mooy suñu réew du ko defar ak mu jën looloo tax ñuy tax ñun jeune ñu engagé wu ba ñuy ñëwee nag wax ñu sa yéene ci réew mi ñu ne ah ñun de je suis prêt pour engager si loolu ñu wax ba nu waxee loolu ñu nekk ci ñun ba bëccëg ñu jógoon na ñu ni koy liggéey dañ ko war a gis ndax koy dégg saa su ne te gisoo ko war na ko gis jógoon nañ fi nan daje fii daje woon fi ba defaat nañ ko ñaari yoon gisuñu tey jii nag sunu borom def ni nit ak bëgg-bëgg yàlla ak dogalam nga teewee ñu rafetlu ci lool nag li xamal nag ñun nag benn mouvement lañu association lañu ak mouvement ànd doon benn la fii lew na gi di liggéeyandoo ñu nekkoon nag ñun nit ak bëgg-bëgg nag yàlla ak dogalam tey ji la yàlla dogal ñu toog pour mën a gisante yow nekk ñu bëri newoon nañ soo ba léegi mais comme ni nga ko waxee contre temps moo am soo ba léegi la ñu waxoon à partir de 11 heures ñu ngi toog fii lu bëri nekkoon na fii mais comme ni nga ko waxee nit ak bëgg ba yàlla tey la heure bi yàlla dogal ñu ñëw ñu lay wax nag bisimilah. di ko fett lool di xam ne lii la ni moom motivation ñun nag li nga wax def nu doy ndax suñ kuréel xam na ni suñu gaal gi senn na te si gaal ku ne ne nag yettal la gaal rabal la sambaal kon daanaka defaral na la ñu am yaakaar ci loolu nag ñu ne woon ñun ñu kenn préparé on est pour engage si li ñu wax di lu teewaay bi nag di la xamal tamit mouvement boobu ñu nekk na association boobu tamit ñi fi nekk ñi ñooy membre yi ñëwoon nañ yeneen membre nekkoon nañ fi nag mais contre temps moo am si diggante bi ñu dellu mais ñi fi toog nii jigéen ñi fees nii ci membre yi lañ nekk ñu ñëpp ñoo si bureau bi lañ nekk balaa nga fi jógee sax dinaa la présenté tuuti association bi ñu fi nekk ñii ci bureau bi su ko defee nga xam ni ñoom ñu ñëpp dañu engagé wu. salaamaaleykum seen ñoo ngi lay wax dalal ak jàmm président ñu ngi lay wax dalal ak jàmm di la masawu coono gi ci coono jeeg yëpp di jéggalu tamit. sama mbooloo mi nga xamante ni ñoom laa yàgg di àndal di si lu ne wax dëgg yàlla foose nañ fi réunion foose nañ fi lii foose waat ka fi may jéggalu si loolu yëpp ba tey tamit ñu wax ñu 11h ñoom ñëpp 11h ñu nekkoon fi tey dama mujj obligé man mi togg añ jënd xaal ak yëpp pour parce que yàgg nañu àndi liggéey xamante nañu du ñu naxante suñu biir ñun ñëpp ma leen di masawu nag coono googu yooyu yëpp ma leen teg. parce que si lu ma lépp lu ma leen mos a woo rek ñëw ngeen ñun nag dañu nekkoon ci benn liggéey boo xamante ni ak euh, PDS la ñu nekkoon ci liggéey ak moom ñu bëri ñi bu ñu xamantee bay liggéey tey parce que dañu bokkoon fi ñu nekk di liggéey mais biñ demee ba ci biir ñu war ñu te ñun du ñu ànd ak pouvoir pouvoir non déedéet lii moo ñu tax tey ñu jóge ci liggéey bi ñu nekkoon démb muy liggéey bu wóor bu ñu liggéeyoon tey ba mu wóor ñu téye ka que ñu jiite woon tey jël suñu loolu lépp ñu liggéey tey xëpp ci mbalit mi mais ñu dellu taxawaat xam ne li ñu amoon jeexagul dañuy liggéey rek moom bi mu ñëwee mu présenté ma këram laa njëkk a dem moom Alain mii Balakoos benn dimanche ma dem fa nii rek mu gis ma gis sa spécimen bi quoi ma ne ko mais kii mooy kan mu expliqué ma ma xool sa programme ak yëpp mais ki la rabal mbaal yettal la gaal kooku lu ci des. lan moo ci des volonté ma gis ne man si politique laay dund si social laay dund moo tax ñi ñëpp topp ma social laay def chaque jour boo duggee ci politique daa mën a am yu bari yi nga xamante ni moom ngay ut te ñun ñëpp ñoo bëgg ñoo bëggandoo loolu may ut fii ci lew na ñëpp xam ma ci li ma wut ci lew na je suis fier lii ngeen def nii yàgg na fi am man man ki ma bëgg ki may àndal mooy ki ma yëg tey li nga dox ba ñëw fii toog fii dafa am lu bëri lu ma représenté tey tey lu ma jàppoon bàyyi naa ka pour topp ànd ak Alassane Sène mii tey di gërëm nag Alain Ndour bu baax sama goro di gërëm Ousmane Ndiaye mosul jóg si sama nopp yi di expliquer di expliquer ma ne ko Alain xam naa lu baax li ngay wax xam naa ka waaw mais di ka ñaanal moom tam moom mi ma dugal ci ci lii quoi ci programme bi ma gis nii tey mu intéressé ma lool ma bëgg ci liggéey ak sama waa quartier bi comprendre nga ak sama waa saint wi ñu àndandoo ñun ñëpp liggéey ba nga xamante ni tey bu subaa li ngay laaj ni dañ koy teg sa diggu loxo ci kàttanu yàlla parce que li nga wax nii nii nii nii amul leneen lu ko gën ci programme comprendre nga ku la rabal mbaal yettal la gaal kay lan moo ci des liggéey moo ci ma lay wax li la seen daal dalal ak jàmm nga sa xel dal fii lépp lu ñu la wax ni la moom loolu lañ lay loolu la ñuy ànd yow liggéey noonu la ñuy ànd ak yow liggéey ragaluñu dara bu ñu ragaloon tey doo fi ñëw taxaw nii dañ doo liggéey PDS fièrement ñoom Tafa mii xam na li ñuy wax ak ñëpp ñoo nekkoon di liggéey xam nañ li ñuy wax parce que dañu bëgg lu baax suba li fi nekk nii loolu du liggéey ñoom seen bopp la ñuy liggéeyal man mi Mansour fay laa doon liggéeyal biir këram laa nekkoon kon xam naa kuy Mansour fay kooku du ñu avancé wala Macky Sall du ñu avancé dañuy tardeel kon bu ñu gisee koo xamante ni tey ñëw na volontaire ni kat fii laa bëgg jëme Sénégal dañ lay jëm ànd ak yow ba ba ñuy gis leneen waaw ñoo ngi lay sant nag di la gërëm du la wax dalal ak jàmm ñëw nga sa kër ñun de léegi moom yow yaa si def mais ñun moom on est ñu ànd ak yow liggéey lépp wax si mbooloo sax bu bëri laa mënul mais <laughs> Moustapha comprendre nga ñun ñi ñëpp dañ fi liggéey liggéey bu rafet li ñuy wax ni ñoom xam nañ li may wax liggéey bu rafet bu mucc ay boo xamante ni du lu ñu du politiciens yi ñuy ay naxak yi déedéet ñun lu la wax moo nekk ci ñun du ay naxe bu ñu bëggee liggéey suñu baat suba ñun ñoo koy liggéey yaay def lu tax ñu liggéey base boobu ba lew na tey taxaw dëgër këj bu bu président Cheikh Alassane ñëwee suba beneen taxawaay ngay gis fii ci lew na man daa maa la wax ñu may wax daa am Abdoulaye Seck ñëpp ma xam fii ci lew na ma benn buntu kër buntu kër yëpp lay dugg parce que loolu mooy dëgg nit boo gisee li lay jàppale li lay jàppale suba nga gis sa njariñ ci moom da ngay dem nga ànd ak moom li ñuy bañ kay mooy comme ñu ma lay wax ñii rek ñi fi nekkoon ñëw ñu toog nii jataay def lépp mais bu subaa ndekete lépp ay ay nax la bu boobaa man mii dañ may jàppe naxakat mbooloo yombul dajale nit ñi yombul ci onze heures ba léegi barke Seydina Mouhamed ñoo ngi fi toog ñu bëri fi la añee toog di xaar am patience bi lool parce que liñ ñu wax si yow te gisaguñ la moo tax loolu am ñëpp bëgg découvrir kan mooy président Cheikh Alassane Sène kan moo yore nara yore Sénégal suba kooku foog ñuy fier pour ñu gis que bu yàlla defee tey ba nga nekk tey président de la république mais dañ koy bëgg ni kii ñëw na ba toog fa loolu rek archive la bu dul dootul ci àdduna kon yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla teg si bopp réew mi yàlla na la yàlla yombalal lépp ñun de ñoo ngi sa ginnaaw ñun mbooloo mi yëpp toog ak ñi ñëwul tamit am na ñu bari ñu ñëwul du ñu dul rek parce que bureau la mën bu la neexee nga limal ko bureau bi lépp nu mu tëddee bureau la ñuy liggéeyee. di jàppalante si biir koñ bi di dimbalante di demalante ay dëj ngénte ainsi de suite ku soxla ñu jàppaleen ñëpp si loolu la ñuy liggéey nekk benn bloc bëgguñu daal politicien boo xamante ne dafay ñëw rek nax ñu suba après dem def la ka neex nekk ñu ci yooyu waaw bëgg nañu ay don de sang bëgg nañu ay reboisement bëgg nañu yeneen ak yeneen suñu quartier daal rafet ba xamante ni daañu doon exemple te loolu gëm naa ne lii nga def fii loolu du dara ci yow mën nga développement rek la ñu bëgg te xam naa ne développement mi ngi ci yow waaw yàlla nu yàlla bokk jàppale na bokk ñu dimbali ñun ñëpp ba yàlla bañ a tas suñu yaakaar si yow waaw yaay suñu leader tey yaay suñu leader suba te incha allah bis bu liggéey bi tàmbalee daa xam ni li ñu lay wax nii du ay nax lépp dëgg la si ñun waaw man du ànd ak koo xamante ni day naxe waaw déedéet gisuma ko ci yow yàlla nu yàlla dellu si nag di sant teew bi nga teew fii si gil ma si diggu lew na gii tey waaw xam nga ne teraanga ji lépp tey nga teeral ko si bunt kër gi nii mais ku ko gis daal laaj fii lan moo fa xew kan lay seet si Ablaye Seck daal la ñuy seeti lew na kooku tey ñëpp kay fanaanoo waaw kon yaa nu mën a yaa mën a jàppale tey ba tànk bii poids bii tey nga nu jox tey fii si diggu lew na gi ñu téye ko ak suñu fukki loxo ba bu subaa boo fi ñëwee leneen nga fi fekk mais du du lii ci mbedd mi man laa daan làng boo gisee sax ma làng de ci biir kër gi dañ ma wax programme bi mu daj ñu waxaat ma ma daj ba tey sax maa ngi doon du quoi ko <laughs> que yaa ma gën a xam dajale mbooloo yombul mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu rek mooy problème bi mais si mbedd mi laa ko naroon génnee ñëpp fekkee lii gis lii xam ni président Cheikh Alassane Sène mooy ñëw lew na cati dow waaw ñëpp xam la te daan la xam bu soobee yàlla. incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf président. suñu xol a sedd rek. jërëjëf président. seen tawaay bi Alioune Badara Niang non man danga ma neex élection bee paas rek déggoo gisoon naa la nga def benn programme bu rëy yaag Pape Ngagne Ndiaye télévision ma seetaan émission bi moom dafa mujj jaaxla sax programme boo teg ne lii mun na mu lay na foo koy jële <laughs> ba émission bi jeex maa lay déglu yow topp say programme Sénégal ñoo xam mais xam naa la parce que boo boo bëggul woon Sénégal doo engagé waat pour élection bii ñëw 2024 nga engagé wu. élection dafa métti nga yàq sa xaalis yàq indi ay mbooloo yëpp nga def Sénégal moo la ñor ko la jàppalu day day caaxaan dañ la war jàppale parce que ñun xoola pétrole bi génn na ndar ñu ngi naan ladda guerre ladda guerre fa la ndox mu neex bi di génnee wala ladda neex ñàkk programme la dañu am géej yoo xam ne toog 6 am ndox ñu ne jàppale Macky Sall ba kañ maanaam Mansour Faye ne fi di tabax ay kër di bàyyi rek ndar gépp jënd na ko te kenn du ko wax koo wax ñu woolu suba dig na la kaay wuyu yooyu ñoo fi war deñ Sénégal ñëpp lañ bëgg liggéey te pétrole bi génn ndar waa ndar war nañ ci mën a bénéficié wu góor a jigéen ñëpp di liggéey mais pétrole mi ngi ndar est-ce que ndar dinañ ci bénéficié wu duñ ci am dara àdduna bi nag dañ ñoo nit nit dafa war di dox ànd ak moom di dox mais di bëgg di dellu ginnaaw di reculer en arrière kuy falaat Macky Sall xanaa da nga bëgg ñu delluwaat ginnaaw deux vingt ans en arrière nguuram jeex na ñii fi ne dañ leen fal génération bi ñoo fi ne ñu jàppale leen ñu gëm suñu bopp génn mbooloo bi loolu mooy àddina àddina noonu lay doxee mais mënuñ topp Macky Sall Macky Sall rek ba kañ mu ngi wuram jeex na dañu war noppalu gu dem xool leneen mënatul wax ba nekk président 2024 du fi ne wax ba nekk président incha allah dañ koy bañ luñ ko jaral jaral ko ñu fi yàlla bàyyee du fi nekk président luñ ko jaral jaral nañu ko génération bi yéen fi ne xeex le loolu ñu mbooloo mooy doole ñu fal leen ngeen jiite Sénégal bu weesu demee cinq bu keneen leeru ñu xool il faut ñuy xool ba keneen bay am lu ñuy gënal présidentiel yow la ñuy tànn yàlla baax na yàlla na yàlla may ndam ci kaw Macky Sall. mi ngi tàmbalee si bitim raay rahmaani yeggalee ci alhamdulilah rabil alamin kontaan nañ seen teewaay ñu ngi rafetlu ñun ñëpp ñun nag surtout maa jigéen ñu ñun ñoo gën a sonn ñun nga xam ne suñu borom kër dañu wàññi ko yore ay njaboot fi mu nekk ñu ngi bëgg deew ak xiif deew ak coona maa ngi damay mbëkk miir yi damay daanu ndax sonn jigéen bu demee ba sonn boobu metti na mhm. jamono ji metti na metti goo xam ne nekkuñu fi naan Macky Sall Macky Sall ñu ngi bëgg deew ak Macky Sall Macky Sall si bëgg boppam la ñu bëgg yàlla nañ ko fi yàlla teggil 2024 ba ñëpp am seen jàmm ñu ngi sa gannaaw duñu daw ñu ragal man yàgg naa politique di ànd doole tiijaan si la fa nekkoon génn fa ñëwati si ma yoro far génn si ñëwati si yow mi ma yàlla booleel tey te danaa te jàpp ba mu nee ñu ngi sant bu baax ne di ñaan di la dolli na la yàlla defal nga am dam ndam 2024 incha allah bu neexee yàlla dañoo sonn dañoo dee lekkatuñu naanuti sonn nañu ba pare liggéey ñu garñu si càmmin yaa ngi nii xaal Sénégal métti na métti goo xam ne yàlla na ko fi yàlla tegg keneen toog te nga toog mu nekk sa njiglaay loolu la ñuy ñaan ñu ngi sa gannaaw lu ñu daw mukk nag ay jigéen lañ jàmbaar lañ lew naa ngi nii macha allah daa mi nekk ku nekk dëkkal fu ma bu ma woon ci kaw fii te damay ànd ak moom ndax gor jàmbaar la gor la moog Alain bi dawuñu dara yal leen yàlla taxaw ba li ngeen bëgg ngeen am ka incha allah dañ leen di ñaan ñu seen gannaaw kontaan jërëjëf ñëpp a ngi leen di kontaan nañ. aleykum mbooloo mi Euh, daa Abdoulaye maa ngi lay nuyu di nuyu waa Léona yëpp di nuyu jigéen ñi di rafetlu accueil bi ñu ñu bàyyi ñu nodd bi jàll rek ñu eggale incha allah léegi maa ngi nuyu waa na di am mbégte mbégte mu rëy ci ñëw bi ma yegsi si kër gi di la sant ci engagement bi ma dégg nga amal ko waaye lii lépp nag Alain Alain moo sookee lii lépp di liggéey moom ak équipe liggéey bu ama am solo ci wàllu le projet de société bi ñu bëgg lal ci réew mi en 2024 mu nar a révolutionner lépp incha allahu taala projet bi nag même Mansour fay am na ci wàll ndax en 2024 moom suñu wàccee moom dinaa ko sant liggéey bu rëy ci ndar boo xamante ne tëj kaso amu fi nag waaye préambule constitution bi li mu wax mooy engagement patriotique muy Macky sàll di Marème Faye di Mansour fay di seeni frère seeni mbokk Amadou Ba ministre ñoom far ba ñëpp kenn ku ne naa la sant liggéey boo xamante ne maanaam amatul kenn ci ñoom ku war a wàcc ba pare ne xaaral ma dem xool yi hôtel sàngam neexoon na ma te am na alal xaamu dem noppalu foofu noppalu amatu waaye dañ ko def intelligement kenn du dem kaso nag ndax kaso bi dama am lu ma ci seetlu koo ci yóbbu soxnaam ak i mbokkam dem uti ay militant def leen ci ay car dem palais de justice taxaw fa fees fa libéré diw bu dul jeex après ñu dem ba askan bi tànqal boobu ñu leen tànqal dañuy dem ba bëggaat la fekk yow la nga def mu ngi ne gàññ jaxasee la président de la république léegi loolu amul léegi CREI day dox guddi dootul dox bëccëg mooy CREI boobu di jàppaate guddi lay dox suñu gisee hôpitalu Ndar bi doxul daañu woo benn ci kilifa yi fi newoon ne la président nee na darab yi alcool bi lal yi rajo yi nee na nga changé ko ci ñetti weer la la may yow xam nga moom xam na loolu dana xew ci réew mi intelligemment mais amul lu ñu solo loolu mesure bu ñu war a def la pour que ñoom ñu participer ci développement réew mi xam ne cinq ans wala douze ans yi ñu fi nekk seen nekkin teguwul woon ci yoon te daa dama bëgg nga dalal sa xel lii ñu nekkee ñun demuñu négociation vers ak Macky Sall demuñu négociation ak opposition nous voulons faire table rase indi Sénégal bu bees lii mooy dëkk Sénégal bu bees bi ma wax mi ngi tàmbalee dinaa ñëw léegi ci li ma jagleel jigéen ñi yéen ñi toog fii xëy na quatre-vingt pour cent ci yéen kenn ku ne mës naa am financement ci banque mais tam échoué na essayé na jël na xaalis bi échoué na yenn saa yi nga nekk sa biiri mbokk banque woo la nga daw ndànk ci ruq bi waa ji wax na wax wax bu ñàkk teggin ci kay fay nga mu muñal ma dama am lii rek waaye ma di nga wax ba wax loo xamante ne du dëgg sax loolu dinaa ko dindi ci réew mi am naa ci solution mooy la suppression de la mairie de dakaar pour dem vers l'acte 4 de la décentralisation mairie de Dakar ni mu mel noonu soo leen ko xoolee ci télé bi foofu laa nar a def la banque des femmes allo Soxna May moo fa nar nekk 580 milliards de francs CFA laa ci injecté jaaree ko ci le waqf le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde 2000 milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds France a ngi koy utilisé Angleterre mi ngi koy utilisé pourquoi pas le Sénégal am naa solution waaw te li ci neex moo yemuma rek ci ubbi banque boobu soo demee ca ginnaaw mairie bi am na esplanade bu fa nekk foofu laa nar a tabax benn tuuru 50 étages ñu tuddee ko kër ndate yàlla mu ne kër jigéen ñi loolu ñaar la nar a def la formation des femmes et l'accompagnement des femmes su ñu amee financement ba duñu pertati parce que loolu ay orientation la laaj nous allons utiliser les algorithmes de l'intelligence artificielle pour que jigéen su amatee investissement ci réew mi investissement du yàqu ci loxoom te loolu garantie laa ci jël mënatuñu continuer jigéen di nekk ci coono yu metti man nuyu naa ay jigéen ci àll bi mais bi ma leen bi ma teggee sama loxo sama loxo dafa def ay marque ndax coono yu ñu nekkee coono yu metti laa wax boobu temps nag ñun ñun góor ñi ñun dañu yaakaar ne ay buur lañu dangay dem ci benn dëkk sax fekk ñëpp a ngi toog di féexlu jigéen ñaa nga ca liggéey ba su ngoon jotee ñu tegal ñu lu baax ñu reer raay suñu koll dem tëdd ne ndaw si gërëm naa la yem foofu lii rek moo xew ci réew mi moo tax nag jos nañu dooleel leen ci lii ma wax ni yaa ngi wax na dekkil dekkiloo Saint-Louis intelligemment d'abord lancer les travaux les grands travaux du train à grande vitesse le TGV nga ne mooy lii relier Saint-Louis ak toutes les capitales régionales moo koy relier aussi avec Ziguinchor nga ne mun nga yeewu fii dem yendu Saint Ziguinchor le lendemain matin nga ndekki si waat Saint Saint-Louis mhm. daañu ko daañu ko tëral ci réew mi incha allahu taala xam nañ le mécanisme bu koy financé sans jaar ci contribuable sénégalais mhm. à travers le musée virtuel Cheikh Ahmad Bamba 200 millions de dollars en 24 heures et la conférence islamique virtuelle bu ñu déjee Cheikh al Islam 400 millions de dollars lay def aussi en 24 heures xam naa naka lañ ko nar a tëralee parce que les les algorithmes de l'intelligence artificielle suñu ko mañee dafay jur loolu quand nous avons six cent millions de dollars mooy le fonds de garantie bi ñu permettre ñu waxtaan ak le capital d'investissement bu Abu Dhabi huit cent milliards de dollars la suñu waxtaanee ak ñoom ba am léegi les fonds daañu invité le président de la France duma ko teeru aéroport ndax moom suñu demee dëkkam duñu teeru aéroport moom pale bi la ñuy xaar au marche de, de, de, de, de l'Élysée. On va lui faire la même chose, la même élégance. président bi palais la koy xaar heure bi mu waree ñëw aussi daañu waxtaan ak protocole ba suy ñëw du ñu baaree am euh, tali bi parce que ni ñaa ngi doxi seen soxla dana ñëw heure boo xamante ni du heure de pointe su fekkee ñu recevoir ko waxtaan ak moom ci lu ñu bëgg mooy dekkalaat la compagnie des chemins de fer du Sénégal waxtaan ak Alstom c'est une compagnie française wax ko ne xarama bàyyiwaat mu daal mën a nekk actionnaire dans cette grande compagnie française avant ñuy négocier li tax waa Alstom di tabax le TGV suñu d'accord ci principe boobu nous allons voir les Chinois mais li ci am solo mooy 5000 emplois mooy tourner autour de ce grand projet bi nar a dekkil Saint-Louis définitivement yaa ngi wax pétrole bi wax gaz bi nu allons aller vers la renégociation des contrats tout en respectant les chartes et les lois qui régissent les contrats yi ñu signé sur le plan international c'est important foofu nag soxna yi laa bëgg ngeen xam ne que d'abord fàttali leen sama tur Cheikh Alassane Sène pour ñi ko xamul wax leen ne que fermement ñu ngi jëm ci élection yi ñu jëm présidentielle 2024 et que daa wax na ko léegi man du ma nekk candidat de circonstance négocier wuñu aussi candidature bi demuñu ba dernier village même su ci sàll doom jooy deret benn wax rek la ñu am ak moom mooy jot na nga dem def nga def nga dix ans jëm ci douze ans yow ak sa njaboot génn ngeen ci ndóol te du loolu la ñu digle woon ak yéen li ñu diglee woon ak yéen mooy ñun ñu génn ci ndóol yéen ngeen des na ngeen nekkoon mais comme neen def ngeen ba génn ci ndool da ngeen di dem te déglu ñu nag maanaam tukki moom dañu koy dakkal liggéey réew mi képp ku buggul dem kaso dinga toog liggéey réew mi par force parce que liggéey bi dafa nar a nekk un engagement patriotique citoyen li ma gën a yéem fii laa koy waxee ci biir lew na ginnaaw bu ma sante Ibrahima géey mi nekk sama ginnaaw nekk le coordonnateur national de toutes nos activités ngeen xam ko mu nekk waa Ndar mi ngi nii sama ginnaaw euh, di def liggéey bu am solo ak ñoom Alain ñoom Soyibu ak gaa ñëpp euh, li am solo rek dëgg-dëgg mooy daa bugguma nga jàppale ma ci élection yi ñu jëm te Kocc Barma dafa am wax bu mu daan wax nee na bu ñu ne teel rek nga ne dàmm na wax bu rëy laa la wax ma ne bëgguma nga jàppale ñu élection yi ñu jëm li ma bëgg mooy ñu ànd ànd nawle ànd nawle jàppalante amu si dama bëgg nga nekk un actionnaire plein dans ce grand projet politique pour aller vers les profondes mutations qui vont changer notre pays lii laa bëgg waaw beneen bi mooy sa participation ci yëf yi man je suis désolé mais ni politiciens yi def sénégalais yi neexuma mooy tey ñu ànd ak diw suñu amee li ñu bëgg sànni la loolu moo xew ci réew mi ñoom ñëpp nag te yéen ngeen màgg ci nag ci màggaale seen i njaboot ak seen i militant teguwul ci yoon waa loolu li ko waral mooy ñoom dañu daas fanaanal daas fanaanal bi mooy li ñu bëgg dëgg-dëgg muy seeni soxla boobu mooy changer seen dund dañu ko jël dëggee ko seen tànku ndeyjoor jël seen loxo bi wan la mu weex tàll ne la lii lañu ñu bëggal réew mi mais du dëgg ca ñoom 1960 ak léegi moo tax incha allah suñu jëlee réew mi dañuy dem ci référendum dañuy wax pincez tous vos koras frappez les balafons moom la hymne bi tàmbalee day dañ ci hymne bi ñun li ñuy njëkk wax mooy sant nañu yàlla ñun ay jaamam loolu laa nar a proposer Sénégalais yi mais référendum la jëm ñun le temps ñuy pincer les koras ak a frapper les balafons mun nañu wax ne yàlla sant nañu la ci li nga ñu defal foofu la ñu jëm ndax ko proposer Sénégalais yi ndax mënuma mënuma concevoir ñu nekk dëkk boo xamante ni quatre vingt dix pour cent de croyants te yàlla feeñul ci suñu constitution feeñul ci suñu hymne te soo demee États-Unis seen constitution yàlla lañ jiital seen xaalis ñu jël ca kaw bind ci in God we trust yàlla la ñu gëm te ñun amuñu dara ci loolu naa ko proposé du ma décidé sénégalais yi laa koy proposé ñoom ñu xool su fekkee ne yàlla ji war naa dugg ci hymne bi parce que hymne bi dafa am lu ko lal Senghor moo jógee Kaolack ñu piège ko pour bëgg ko rey mu mucc ci piège bi moom poyet la bi mu muccee sëñ sëñ Touba bi mu muccee ci loxo noonu lu mu wax kaay leen santale ma yàlla daal di waxaat benn baat bu kawee xadin sarafat haaji ila fatixi ratxi wa inni la wo abdul wali jaada bi itxi xoola loolu li mu wax digganteem goreel bi ko yàlla goreel ak mu wëlbatiku nag nekk jëwrin ak liggéeyal gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam Seydi Haaji Malick feelu ko ne ñëw leen ñu màggal guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Jésus Christ ci bi wax aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment quel mérite en auriez-vous loolu suñu ko jëlee ñu tënk ko ñun suñu yëf yàlla daf ci war a fës fees si dell ndax ëllëg suñu taxawee ne ko yàlla yow mi ñu mayoon pétrole may ñu gaz te yàlla dara taxul woon nga may ñu ko nga may ñu or may ñu yeneen yoo xam ne mi ngi feeñ ci suñu suuf yàlla delloo lañu la njukkal bis na tey ñun sénégalais yi jóg nañu def nañu référendum nee nañu génn nañu pincez tous vos koras frappez bala balafons ne yàlla jox nañ la suñu bopp wóolu nañ la yaakaar nañ la jëlal lépp yow foofu laay yemale wax bi di leen sant di leen gërëm baax a baax a baax jërë ngeen jëf waaw. man gëm naa ne daa doxal lii nga wax nii si yàlla si borom bi te loolu yàlla la ko jox muy réew na sant yàlla sant yàlla boobu yàlla dina la ko jox jërëjëf président kontaan naa leen voilà oto sécurité moom moo nekk bëre oto sécurité la saa yi non mooy lii quoi ah waaw espace bi nii gën da ngay mën a waay yow yomb na waaw maa ngi leen di nuyu ñu ngi leen di dalal ngeen ak sa jàmm ak salaam rek fi jàmm bàyyi fi jàmm waaw ñun nag mbootaay lañu fii plan lañu organiser mën nañu quatre-vingt-dix personnes macha da ngeen yéex da ngeen yéex a ñoo fekk sànq ba rek ñu ngi leen doon xaar ñëpp ñibbi nañu parce que ñi ñu ngi ci géej gi la ñu nekk gaal yi dafa teer ñu woo leen ñu ñibbi ñu dem moo tax fekku leen fekk ngeen presque bi ngeen ñëwee fekk ngeen ñun ñëpp ñu ñibbi woon sax après dañ dellu siwaat mais moitié bi ñëpp ñibbi nañu fii nag leader politique yu bëri jaar nañ fi ku ne day ñëw wax boo waxee bon buñ la may buñ pare duñu gis dara wax rek dem du am benn finalité ñu ne dañu bëgg li nga xam ne nit boo ñëwee boo waxee li nga wax mu nekk lu concret loo xam ne boo waxee ñu dañ si gis suñu bopp ngeen gis seen bopp mais wax noonu rek loolu taxul ñuy wax danga bëgg nag ñu jàppale la pare nañ ubbi nañ porte yëpp pour jàppale la jàppale bi yëpp si yow la des nag waaw incha ñu ngi seen ginnaaw daal waaw bu ngeen ñu soxlaa rek ñu ngi fi fii nag plan plan la ñu organiser plan ñu ñëpp waa koñ beeg am na yeneen ñoo xam gendar lañ dëkk ñuy dëkk gendar ñuy dëkk gox mbaaj ñuy dëkk ñëpp ñu ngi fi waaw mais da ngeen di ngeen yéex a ñëw parce que sànq rek ngi leen di xaar ngeen a ñëw moo tax ngeen ñoo fekk ñëpp dem sax presque moitié bi ñëpp dem nañu waaw léegi nag bu fekkee da ngeen fii ñëwaat rek dinañ leen xaar incha allah rek ñu mobiliser waat ñëpp waaw wasalaam mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen dalal di leen wax bisimila Daba Ndiaye moo tax man ma xam la Alain moo ko booleek ñun boobu sax ñi xamagun ci dara réunion bi ñu doon def euh, permanence ba ñun ñoo àndoon ak kii doon wax léegi ñu dem fa tam jël kaar dem siggir ka fekk na booba jibi sa bu baax la ziar ñun nag ay xale nanu mais dañu nekk xale yoo am jom parce que toogum rek di xool dañuy wuti daani suñu doole ñu jàmm ñi daan dem jàmmalaay ñi leen ngi jaay ndugg ñi leen ngi amee seen ay congélateur di liggéey mais financement daal lu ñu bëgg ku ñuy financer parce que financement pour nga mën ko jot dafa jafe da ngay da ngay dégg nun la financement am na fii nga dugal sa ay wut nu la wutal certificat résidence nga wut nga dugal sa xaalis te doo gis financement ba abadan waaw bu doon suñu sagoon nag mu dimbali ñu ci ay financement yu dëgër nga mën a liggéey ngir am dara waa ndax ay xale mais ay xale yu bëgg liggéey noonu toogum di xoolee soobee yàlla te boo nu jàppalee incha allah si loolu dinañ la jàppale ba nga bu soobee yàlla wasalaam. sëriñ bi maa ngi lay ziyaara di wax nga jottali ma so nuyoo bi soxna si soxna Daba maa ngi leen di sant bu baax. Euh, dégg naa kàddu yi fi jip euh, muy ay kàddu yiw euh, ma déglu ko nag religieusement li ngeen ma wax man maa ngi tudd Cheikh Alassane nekk doom doomi réew mi xool ni réew mi doxee mu metti ma lool moo tax ma jóg tàbbi ci yëf yi ngir indi ci ay soppee soppeeku yu mag a mag a mag lenn rek laa ciy jukki ci li ma bëgg mooy le plan tàkkusaanu ndar bi ma bëgg a dekkal muy dekkal koomu koomu ndar li ma ci jublu mooy réew mi yëpp suñu daan wax ndar rek seen xel yëpp dañuy dem ci seen hospitalité maanaam seen mën a teral gan li taxoon teraanga gan googu yaatu woon lool mooy koom bi moo doxoon ñu dem ba koom bi nëx saay ci réew mi soxna si mi ngi junj léegi wàllu jigéen ñi ak seen nekkin ak seen taxawaay ni mu sookee jamono ji ci réew mi mënaat ci indi solution bu am solo te yéen ñi toog ay borom yi xel ngeen même dans le cinq Coran suñu borom dafay wax ne je parle avec les doués de raison moom lay ñoom lay waxal ci alquranu karim dans la Bible comme dans les autres religions révélées yàlla mi ngi waxante ak borom yi xel yi te wax nañu nekk que ce sont les idées qui mènent le monde ay xalaat ñooy soppi ay xar kanami réew mais xalaat yi yan na tegu ci sellangi sellangi googu lañu ñu bëggee tab ci yëf yi projet jigéen ñi laa bëgg indi li ma ci nar incha allahu taala ma bëgg ngeen déglu ko. su ma demee kenn ku ne si yéen analyser parce que li ma njëkk rendre compte mooy plus de quatre-vingt pour cent de femmes yi fi jot am financement dañoo perte ci réew mi bi ñu perte terewul ñu bàyyi leen ndax perte nañu banque yi leen lebaloon dañ leen topp ba ñu fay ba ñu fayee amatuñu sañ-sañ dem lebi ñaareel ba bor boobu tax na ba seen lépp nax saay na c'est rare tey ji nga dugg ci kër jigéen fekk mu am sa jaaru or benn rek waxum waxatuma sax chaîne benn jaaru c'est rare li gën a dox ci réew mi mooy pakoti soob soobaat mu yàqu sa loxo yenn saay sax amuloo occasion di jëndaat pakoti boobu ak or léegi gramme bi fu mu toll su ma juumlee mi ci trente huit mille jàpp quarante mille chaîne lu mu néew néew lu mu néew néew dina def vingt grammes calculer loolu ci xaalis ban jigéen tey waa mi ngi noonu donc léegi li ma daan lu simple la mooy dem d'abord ci acte 4 de la décentralisation acte 3 bi dama koy supprimer daal di daal di supprimer la mairie de Dakar mairie de Dakar fi mu nekk noonu ci batiment ba mu nekk moom laa bëgg récupérer def fa la banque des femmes moom laa fa bëgg def injecté ci cinq cent quatre-vingts milliards de francs fa fan laa nar la jëlee alal boobu dafa am benn loi bu ñu voté fii ci assemblée nationale bu Sénégal en 2015 promulgué ko muy la loi sur le waqf le waqf mooy le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde deux mille milliards de dollars mooy tourné autour de ce fonds France mi ngi utiliser xaalis boobu Angleterre mi ngi koy utiliser ak yeneen dëkk ci àdduna bi mais Sénégal ni mu tëggee loi bi baaxul dañ koy nar a tëggaat rapidement dans les trois premiers mois yi nar a jëlee réew mi dañu koy tëggaat te du ma changer assemblée nationale bi li ma ci nar jigéen ñi lañ ko jagleel. maa ngi xool ñaata jigéen ñoom assemblée ak ñaata góor ñoo am yërmande ñu voté loi bi rapidement pour ñu daxal mairie de Dakar teg fa la banque des femmes ca ginnaaw am na esplanade bu fa nekk foofu laa bëgg tabax une tour de cinquante étages ma tuddee ko kër ndate yàlla mu nekk kër jigéen ñi pour soo balaa ngay jot fonds ci banque bi nga mun a dem ñu defal la formation rapide accélérée ba pare defal la aussi suivi soo amee fonds yi pour benn jigéen dootul perte ci xaalis bi xaalis bi nag li ma ci bëgg mooy du am d'abord garantie ensuite jigéen bu ñu lebal ci réew mi du fayati ay taux ci li mu leb li ma bëgg nag mooy créer un fonds solidaire ba jigéen bu liggéey su fekkee am na dix mille francs de bénéfice moom mu jël trois mille wala quatre mille ne jox naa ko tey ji réew mi ma dimbali woon ma am li laa nar lal ci ci réew mi pour jigéen ñi mu nekk un projet très sérieux projet bi nag mbokk yi li xew ci réew mi depuis mille 2012 ak léegi ñun ñëpp ci tegandoo sunu bët ñi fi jaar ngeen ne bëri nañu ñi doon wut ay mairie di wut ay député mais présidentielle la ñu jëm kan moo nar a yor Sénégal bu bees bi bokk na ci ci projet yi ma am mooy référendum boo xam ne ci trois premiers mois yi toujours moom laa bëgg fi ñu def pincez tous vos koras frappez les balafons dama bëgg ñu dindi ko ci hymne national bi def fa sant sant yàlla bu mat sëkk moom mi nga xamante ne moo ñu dimbali tey ñu am pétrole am gaz te fenn ci fenn ci suñu constitution fenn ci suñu hymne national moom turam nekk fa te loolu du dëgg du yoon ci réew mu mel ne Sénégal ak fi ñu toll tey jii ci wàllu ngëm muy jullit muy chrétien ndax président Senghor bi mu jógee Kaolack di ñëwaat Ndakaaru dañu ko defal benn piège mu mucc ci piège ba ci la binne hymne bi ne pincez tous vos koras frappez les balafons ma wax ne ñun am nañu ñeneen ñoo xamante ne muccoon nañ ci ay loxo noonu ku mel ni Seydi Hadji ku mel ni seriñ Touba. ba ñu muccee ci loxo ay noon dañuy wax santale leen ñu yàlla loolu lañu ñu indi fii ba suñ borom moom mi moom lépp xam lépp mën lépp ne fépp dana gis ne doomu Sénégal yi nga xamante ne jagleel naa leen lii war a soppi seen réew jiital nañ ma ci seen lépp muy hymne national bi d'abord soo demee États-Unis dans la constitution américaine wala nga dem ci dollaru américain li ngay njëkk a gis mooy in God we trust mooy yàlla la ñu yaakaar loolu lañu ñu a def fii ci ci ci ci réew mi beneen bi nga xamante ne nag mooy affaire ndaw ñi ma nar ko initier ci réew mi mooy les 5000 emplois yi nar a dimbali ñu tàmbali le TGV bi relier Saint-Louis dem Ziguinchor waxuma train normal train normal dawam dafa yéex mais bii c'est un train à grande vitesse financement boo xam ne état du Sénégal du ci dugal un franc ñu ngi ko nar a jaaree ci ñaari mbir la conférence internationale virtuelle. sur la vie de Cheikh al Islam 400 millions de dollars la ci benn fan ak le musée virtuel Cheikh Ahmad Bamba 200 millions de dollars ci benn fan la loolu la ñu nar utiliser pour def beneen partenariat bu bees pour Sénégal ak France incha allahu taala lii nag mbokk yi du gan am na Dubaï gi y a 20 ans 30 ans ci ginnaaw Dubaï désert la tey jii. damay wax rek rien que diggante Dubaï ak New Delhi ci Inde quatre vingt vols la par jour te bi ñu lancé seen compagnie matul vingt ans diggante bi Sénégal lancé na fi ñetti compagnie aérienne yëpp tëj na bii la mujjee am moo tax ma bëgg rek ngeen gëm ne yaakaar mën naa dekki ci réew mi su fekkee ñun muy ndaw ñi muy jigéen ñi muy mag ñi ñëpp d'accord nañu ne ànd pour dem vers ces mutations taxali ko ak politiciens yi fi ne dañuy waxante dëgg man tey damay jël benn exemple je n'ai rien contre lui mais situation dund Mansour Faye en tant que maire u Saint-Louis avant avant que Macky Sall di nekk président kenn xamu ko ci yéen bi mu nekkee président ak léegi dañuy wax yàlla dëgg la bëgg léegi dundam soppeeku na ay njabootam seeni dund soppeeku na fan yee passé li ma yónnee benn vidéo ñu wane benn doomam mu am benn ferme boo xamante ne xam naa ay milliards la ñu ci def ma wax ne waaw ma wax ne ba pare ma yegaat encore ne am na kër bu mag fii boo xamante ni ku ko fay un milliard aussi du ko jaay ma wax ne waa loolu yëpp ñàkk patriotisme la man su ma jëlee réew mi ñoom ñi nekk aux affaires du ma ci tëj kenn kaso waaye pannaa juróomi at nag kenn ku ne loo jot a am ci réew mi te wa teguwul ci yoon di nga ko delloowaat askan bi ci wàllu doxalin bu may doxalee intelligemment ak ñoom ñëpp lii nit gën a ragal su ko tegee ci kaw nit moom du nit président Macky Sall soo xoolee ni muy jàppee ni ñi def ci kaso dafa xam daf ko ragal gi mu ko ragal moo tax mu ne yaakaar naa ne koo fa tëj it noonu lay ragalee man tëj na ma fukki weer ak ñett bi ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla dafa dimbali ma bind fa mille pages jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind benn téere boo xam ne jukki bu ndaw bi ca la bokk ci sama vision ci réew mi li ci doy waar mooy biñ ma tëjee toog naa lu mat weer boo xamante ne dañ maa ber ci néeg maa gis kenn sama doom jamono jooju mi ngi toll comme kii sama doom bu jigéen la première fois ñu may ma ñu ñëw visiter ma dafa daw ñëw ba egsi si man ne ma papa li ma lay ñaan mooy bul wax pardon mukk Macky Sall ndax yonent bi la ñu saaga xale comme nii ma nekk fa diñ ma musuma jooytu musuma wax dara fan yi may waxanteeg yéen fan yii nii dama jógee Émirats Arabes Unis Dubaï bi ma duggee ci aéroport bi rek jàpp nañ ma biñ ma jàppee li ñu def mooy nangu suma passeport diplomatique ne ma amatoo ci droit parce que àndoog Macky Sall mais jooytuwuma ko li ma def mooy bi ma toogee foofu def naa 2000 salatu ala nabi ci toogaay donc man yàlla bëggoon na maa dimbali parce que jooytu waruma wax naa nag ay nit ma ne leen. xalifa Sall laataa ñu koy jàpp jooy na ca mairie Dakar ndax li ñu ko fitnaal muy xam ne ma ngay waaj a dem kaso Idriss Seck ba mu génnee ca kaso ba def na conférence fii ci RFM jooy na ba ñu dagg émission bi may ko mu dem fompi rangooñam ñëwaat toog man génn naa musuma jooy te duma ma jooy it ndax pour man c'est un engagement ferme bu ma war a amanteeg askan bi ci jiite réew mi jooy yoru ko li am solo mooy góor da ngay takk sa fit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay génn màkka yàlla bindal ko aaya ne ko inna fataxna laka fatxan mubinan may naa la ndam lu dul fay ba mukk waa màkka di ree mu ne mu ne Aboubacrin bi mu àndal daal di muuñ ne ko kii ma wax lii duma ma mukk dellu siwaat na màkk bi mu dellusee see libéré na kaaba gi moom gën gi mindeef ñamu àndal dañu ko wax ne léegi de sallallahu alayhi wa sallam mun ngaa dox ndànk daagu dem duggwaat sa kër ga nga nekkoon te ñu jël ko ci yow bi ngay génn fii mu ne damay bañ déranger ña fa dëkkee bàyyi leen ñu utal ma fu ma fanaan ma mun a ñibbiwaat Médine kooku nag mbokk yi ci moom lañu nar a jaar intelligement pour tabax suñu réew lii laa bëgg ngeen xam ko te ñëwuma aussi pour jéem a am mbooloo bugguma kenn ku ma dimbali ci projet bii soxna si bëgguma ci benn ndimbal li ma bëgg mooy ànd nawle ànd nawle dimbalante amu fa ndax dimbalante bi xew ci réew mi mooy ngeen ñaata nit ngeen fi dimbali ñu dem ba àgg ca mbir ya seeni oto changé seeni kër changé ñu fàtte la man nag utuma ci lii ma jëm ndax su fekkoon loolu rekk la li ma am dama ci dund yem ci ak sama njaboot mais sama réew bëggatuma mu continuer des ci nii te soxna yi suñu continuer lii nii ci réew mi yéen ak seeni doom fi ngeen toll nii ñu ci bëri ci yéen am nañu cinquante ans ñu ci bëri ñu mag ñi wala mu teg mais seen quatre-vingt pour cent seen i rêve benn réalisé wu ci ba tey nañu waxante dëgg te yàlla tax est-ce que dañu war a continuer ci loolu déedéet beneen bi may tëjee nag boobu yéen ko moom parce que élection yaa ngi ñëw te Macky Sall candidat la foofu laay ñëw ak yéen bientôt Marème fay sàll ak frère Mansour Faye daañu tàbbiwaat ci réew mi ñëwaat fi tàmbalee maye suñu alal boobu nag suñu alal boobu ñu leen di jël di leen jox ñuy wax maree ma baax déedéet alal bi ñoo ko moom jël ko dénk leen ko pour ñu defar réew mi defuñu ci réew mi li am solo def nañu fukki at muy teg ñaar biento li am solo mooy wax leen nag léegi dem jot na ci ñoom waaw moom de xam naa kii rek waaw dem jot na donc maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm soxna Daba su ñëwee nga nuyul ñu ko li ma bëggoon rek mooy kenn ku ne xam sama intention bi ma yëkkati yàlla laa ci jël seede nekk benn envie laa am mooy sama réew soppeeku duma xaste duma saaga duma dugg ci fitna du ma taal réew mi li ma bëgg mooy sénégalais yi fa ñu toog kenn ku ne dimanche ba su jotee yàlla tàbbal ci sa xol ndax yàlla rek mooy maye. mu tàbbal sa xool li tax nga mun a voteel Cheikh Alassane Sène ñu dem ci cinq ans yi nga xamante ne c'est pour apporter des changements profonds profonds ci réewu réewu réewu Sénégal bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yal na yàlla yokk yiw ak jàmm ci réew mi ak ci Saint-Louis incha allahu taala am naa mbégte jërëjëfate jërëjëf macha allah jërëjëf. waaw léegi mag ñi ah. waaw xaaral yi nga jaar rek ziar. waaw. ndax ñu ñu rafet ci Sénégal am lu mu bëgg yit ci Sénégal te naa ne jullit mooy jàppale moroomu jullit mooy Cheikh ka excellence man nag nee naa ko gën a kawe وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ñu ngi ñëw ci yàlla na la ko yàlla yokkal. ñu ngi lay dalal di la wax xalam nga saalan nga martaba ñëw nga ci carte boo xam ne mooy carte sant bi. ñu koy wax ndax tuuti. fii la kër tubaab bi nekkoon fii la kër fii la Mauritanie nekkoon ñu ngi nii booy tabax bi nga gis. lépp fii la doore waaw waaw waaw. pomme bi boo koy pomme bi boo ko jéggee rek yaa ngi plongé wala après prison civile gouvernance bi yëpp fii mooy ndax ak fii la ko def. ah waaw waaw ñu ngi la amee lu am. ñu naan yàlla ñu def ñu ngi jënd tool bi nga jënd yàlla ko yàlla yombal. incha allah gis ngeen ci biir ñu ngi ko wax naan ko ay wax ngeen ci biir lépp ndax léegi maa ngi wax sama xarit bi bu ñu ko ba ñaanuñu dara ñu ngi yàlla nañu yàlla fi gënuñ gënuñ nit ñi bàyyi ko ci waax incha allah defal ko suñu frère yëpp ñoo ngi ñu baax nous avons des questions ñun ñëpp dégg nañu ñu jëm ci wàllu matériel yooyu ñu leen di boo génnee fii même pas deux kilomètres pour téye say matériel jàpp sa ay matériel ah te sunu ay doom rek ay dem géej léegi ñun ñii ñëpp kenn ku nekk ay doom rek ay fi nekk ci géej géej waaw géej gërëm nañu yëngu ñu amuñu beneen xalaat li tamit ba seen leen jàppale surtout après bi tamit ngeen jàppale nu seen sunu sunu gannaaw jàppale nu waaw loolu rek lañ si jublu ñu. waaye ak waaw si laa ko ñu ngi lay waaw ah mën na la yoon daal na ci liggéey bu baax motu leen fii parce que moom Touba fan war nga tax sama jàll. jërëjëf. xaw a yëngal ak xam ne liggéey bi rek moo ko waral bëgg mu baax rek am solo moo waral donc ñu ngi ciy sant bu baax di monsieur le président Cheikh Alassane Diop ñu mooy suñu doyen taw taw nekk membre fii horizon 2024 vraiment nekk suñu doyen liggéey liggéey bu am solo fii horizon 2024 parce que xam nga ñun ma dara bu nu wootee soor ma ñëw du waxtaan def lépp sanc bi sax macha allah lii mbetteel la lii betteel la sax ndax fan yee dama amoon dëj samedi bee passé sama frère dama gaañu loolu rek moo tax mais bu ma leeroon ni ma dangeen di ñëw rek mu leer ma ni am naa temps bi heure bu ngeen ñëwee man aw ma dara de mais ñii ñëpp sama ay sama lekku lanu aw ma kenn xaar ma yàlla awma dara nag mais ku ma ni ci bëre nga jóg nga jóg ndax lépp li ko war a rek man dunduma dunduma xaalis dunduma ko man ngor rek benn yoon laay tooy te kii bi mu ñëwee wax ma sa wax li ma ko jëkk wax mu ni man naa man ka sama télévision laa toog dégg ko muy wax bu ma ko bëggee rek yàlla ak yonente bi tax ma bëgg la barke naa mu bu ma la bëggee rek am ci yow cofeer rek Seydina Muhammad mi ma di gis ni nga ci mel loolu rek laa la bëgg mais amul laneen laneen loo xam maa ngi koy wut man nag nii la ma yàlla bindee lu may wax day dëggu ci man man xaw ma tudd chéri xaw ma ko xaw ma ko man sama tray ba amee rek laay seet tey bu ma bëggul woon ma la bu mu ñëwee laa nekk bu ma ko soppee du tey ba ma ko soppee du tey parce que jamono ñi ñi ko mën yor ci jamono jii mooy ñi nga xam ne dañuy am tawxiit ragal yàlla di jàppale doomu aadamam ndax alal du dara buñ la jëlee ba dugal ci biir baam mais rek nga xam ne alal du dara yàlla rek moo fi nekk kon comme yéen da ngeen jóg pour dimbali doomu aadama yi lii rek a tax ma ni naa leen gunge la ma ci mën ak li ma ci mënul danaa ko def bu su yàlla may matukaay bi ma yemale ko fii macha allah fii ñoo yarandoo ca loola ñun ñun seen ay rakk lañu ñooñu uuf ñooñu teg fit ku nu amasa am ñii la si jóg ak dëkku xeex na ba sonn si nawetaan yor na neuf ans déggoo di xeex ma nekk gunay maar waaye teewul confusion bi mu amoon rek ni lii rek lii la ba léegi bi ñuy waxtaan waxal moo ko déggoo ma ne ko bu ñu ko waxal moo déggoo gën a maanaam nañ tas lépp kon taw li nga wax man danaa ko dëggal ndax xol nga waxe te ku waxe xol xam ne kii xëyee na taw a baax yal na la yàlla may ngay yeggale sa bébët yaa son excellence ba nga gunge ko fa mu bëgg yegg ba ñu gis si sunu bopp si daraja rasulillah sallallahu alayhi wa sànni kàddu maa ngi wax di di la nuyu abo taw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar daanaka yóbbaale nga ma sax ci wax ji eh, te wax ju jóge ci xol ci xol rekk la jëm te lii nga wax ne yonent bi rek moo tax nga téye ma maa maa ngi ko yëg dëgg-dëgg bi ngay wax léegi wax dëgg yàlla may tamit xam naa ñu si bari si yéen ñu may doo gis si jëmm wala yéen ñëpp sax maa ngi tudd Cheikh Alassane Sène laa tudd nekk doomu réew mi maa ngi sant yàlla nag bi ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant yàlla bu wér ci ñaari mbir yu xew benn bi mooy ba ma jooytoo ñu jàpp ma ndax ndax li président demoon ca marché ba ñu jàpp ma tëj ma fukki weer ak ñett ma xëy suba rek ñu bàyyi ma amul procès amul dara mais li may santaate yàlla mooy bi ma yàlla roofee bi ñu ma bàyyee yàlla roof ma ma jéggal président mi ma jàppoon fan yee passé la ma benn nit di ma wax ne waxtaan na ak moom ne ko Cheikh Alassane Sène bi mu génnee kaso teraanga yi mu la defal mbaa sant na ko mu ne jotuma ko santuma ko parce que defloowuma ko ko li ma ci jàngat rek lenn rek la mooy réew mu ñu ne par parloo ak fayonte du ko defar waaleykum salaam waaleykum salaam ma ne par parlo ak fayonte du ko defar beneen bi mooy képp ku bëgg a am daraja ci réew mii mbaa ndomba tànk su la jigéen ñi falul doo falu mukk te su jigéen ñi décidé fal la xale yi ànd ak ñoom nga falu dëgg la ay nit yàgg nañu jaar fii wax leen ne dañoo bëgg doon lii walla doon lii man duma politicien waaye yàlla dimbali na ma ma projet yu rëy ci réew mi bokk na ci la banque des femmes bi ma bëgg a taxawal 580 milliards laa ci bëgg dugal jaaree ko ci waqf le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde 2000 milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds bëggatuma benn jigéen ci réew mi di am financement di ci dugal ñaxam ak dooleem ba pare di perte bëggatuma loolu te quatre-vingt pour cent jigéen ñi financement yi ñu am dañoo perte finalement ba pare banque continuer di leen topp sës leen ci miir bi ñu fay seen kër tasaale loolu laa bëgg mu mu dañ ci réew mi te yéen ñi nga xamante ne ay yaay ngeen lu bëri ci seen i ay li ngeen bëggoon dund bi mel melu ko finalement kenn ku ne ci yéen mi ngi màggetaale benn mëbët boo xamante ne daanaka sax amatul yaakaar loolu faju ci kaw suuf loolu laa bëgg ñu dekkal ci réew mi xew na Dubaï bi ñaar fukki at ci ginnaaw désert la woon tey jii adduna bi yëpp ñu ngi daw wuti ko yemul foofu gis ngeen li xew ci Qatar fan yi coupe du monde vingt ans ci ginnaaw aéroport bi nekkoon Dakar Léopold Sédar Senghor waxuma sax jam ñaajo bi moo daaxoon aéroportu Qatar léegi gis ngeen fu mu toll ndax li ci doon mooy ñooñu seeni dëkk dañu bëgg mu jëm kanam ñii ñu jiite li ñu gën a bëgg mooy ñoom ak seen njaboot yu jëm kanam te te wax ji wax ji leer na 2012 kenn ci yéen xamul woon Mansour Faye tey jii këram bokk na kër yi gën a rafet fii ci ci Saint-Louis te dafa amoon lu Thierno Souleymane Baal waxoon dans la révolution Torodo de 1776 dafa ne suñ la falee na nga soril fal bi say mbokk say xarit say am di jàmm soo bëggee doxal yoon waaye tey Mansour su jalgatee Macky Sall du ko tëj du ko fitnaal parce que ñoo bokk lépp man nag du ma tëj kenn su ma jëlee réew mi mille vingt 2024 incha allahu taala waaye nag waaye waaw ñu ngi noddu sax wax dëgg yàlla sant naa leen baax a baax a baax tey damay ñaan suñu borom mooy ñu àndandoo ba dugg palais ba moom incha allahu taala du demander audience xanaa muy utalaal nit audience te te yàlla mun na ko may loolu aussi parce que wax nañ ma wax nañ ma taxawaayam ci ci gox bi ak ni mu ci sonne waaw te wa wa wax dëgg yàlla loolu yëpp wax nii kay nii nii sax baax na si ñu wallaay nii baax na si waaw mais moom mi tax na ma transhumé barke Cheikh Fallou Mbacké gis daal damay transhumé ndox ya jërëjëf mais man Sonko laa woon dëgg la yëpp dëgg la wallaay waa dëgg la mais damay transhumé ndax sa jëmm saa dëgg macha allah macha du soxla. ça va. ah. baaxul de ah. waxoo bal waxoo kay waxoo lii. bal bal. jégaluwaat rek ci changement bi ngeen xam moo waral loolu ñu bëgg mu baax moo waral parfois bu ñu jàddee am ay bi mais wax ni vraiment gis nañu accueil bi ngeen accueil le président Cheikh Alassane Sène yi ko jéggi ñëw fii ndax ndax jigéen ñi nga xamante ni ñoo toog fii lépp lu yéene sama xol bi lépp lu ma soxla sama xol bi laa ko yéene ndax le président dafa nekk bis boo xamante ni dafa neex loolu détail la ba xamante ni toog nañu nekk si yéen mu tax ñu am ci moom yaakaar lépp loo xamante ni rek ñu ngi koy liggéey. pour le président Cheikh Alassane Sène mii la ak naataange askan wi Cheikh président ba ma ñëwee waxtaan ak sama jigéen ñi dañ ni ma foo nekk ñun foofu fa lañ nekk mënoon nañ ni kat ah yow mosoo ñu jox dara mais dañ ni ma foo nekk fa lañ nekk vraiment delloo naa leen njukkal boobu di rafetlu seen teewaay parce que yàgg na ay borom kër ngeen mais yéen a ngi toog di xaar vraiment kontaan naa ci di remercier délégation bi nga xamante ni mooy ngi askan yi ñu jóge Dakar yëpp vraiment boobu léegi ñu ngi liggéey sama pàcc liggéey bi am na solo di kontaan si sama collaborateur Alain Dou di kontaan si ñëpp ñi nga xamante ni ñoom laa àndal Mbose Ndiaye moo nekk ni le président muy Mbose Ndiaye Mbose ñoom ñaar moo rak yi vraiment ñu nekk fii mobiliser femmes yi ndax man daal sama sama xol dafa set kontaan naa ci def vraiment merci beaucoup tàccu ah. Mate Cheikh Alassane ñoo ngi lay nuyu dina la gërëm di la sant di la wax ñun de ginnaaw yàlla. ñu ngi ci gannaaw Ousmane sunu jëkkër sunu càmmiñ suñu lépp ñun ba fi toogee ba tey jógun Ousmane mi lum nu def lum nu sant moom la ñuy def lum nu tere moom la ñuy bàyyi bañ fi toogee nag ba tey jóguñu ku ne nag jaar na fi ku ne jaar na fi waaye ku wax daan lay déglu boo demit daan toog laxaar boo dikkee baax na boo dikkul baax na ñuy sant nag Ousmane Ndiaye mi nga xamante ni du ñu dugal fenn foo xamante ni du ñu jëmee kanam du ñu jëmee gannaaw lu muy daw suba ngoon guddeeg bëccëg ngir koñ bi la ngir bëgg rek koñ bi baax koñ bi rek ko ñor lekkul dara naanul dara mayuñu dara it waaye dañ koo topp ngir fullaam ak faydam ak jomam ak dignitéem ba war a tax fu mu ne ñu toog leen xaar ma dañuy toog xaar te jóg leen ñu jóg ñëw leen dem ñu dem keroog ba ne yaa ngi fii ñëw danoo toog xaar la rendez bële. ñu toog di la xaar ñu ne taayiwunu ba tey it dañuy toog di la xaar tey mu dikkaay sànq la ñëw ci man ay une ma ne ko amul benn problème daw ma fent toog daañu ko gérer ba nga ñëw. ëppoon nañu fii nag dañoo nekkoon ci tur waaye mu jigéen ñii dañuy taali ñu seeti bërëm kër yi waaye ñu mënul ñàkk dem toog nañ di xaar ba nga ñëw waaye ñun ëpp nañ fii ñun nag ñu ngi ci gannaaw Ousmane lu mu nu wax rek loolu la amuñu lu dul suñu koñ bi ay jigéen ñi kese lañu ku ñu jàppale ñu jël ak suñu jumaa ji nga xamante ne bañ ko commencé ba tey manta dem ñun daal ku ñu ci dimbale téyal ñu ko dëggalal ñu ko ba mu taxaw daal yaay waaj macha allah loolu rek lañ bëgg demuñu nag dëkk ñu ngi toog macha allah. tey yéen ñëpp seen tur ak seen sant di dalal suñu leader di ko wax bisimilah ak képp ku mu àndal muy li Ngosa Ndiaye wax rek loolu laay wax Ousmane Ndiaye wax ka ndax ñoom dañuy suñu góoru koñ nekk si biir koñ bi te bëgguñu suñu koñ dellu ginnaaw te gisuñu nag ku ñu avancé suñu koñ gisuñu ku ñëw rek da ngay wax dem duñu la gisaat ku ñëw loo fi diggee rek diggee nga ko fi ba mu egg rek nga dem gisaatun la kon nag ba usmaan Ndiaye ni toog leen xaar rek tey nag mu indil lu ah yàlla baax na yàlla nu yàlla bokk jàppale ñun ñëpp léegi li ci kanam rawuti bët léegi ñoo ngi ci ñoo ngi ci ginnaaw Ousmane Ndiaye mu nekk sa ginnaaw rek yàlla na nu yàlla jàppale li nu wax rek li ñëpp wax rek loolu laay wax wasalaam jërëjëf. Alassane Sène xam nañu nañu da ngay dox ci diine. yonante bi ñoru la sallallahu alayhi ma sax parce que dafa am loo xam ne sax dama ko faaji ndax xam nga rek émotion la ndax président suñu jàkka ji si ginaaw jàkka la woon bu ndaw ñu volontaire waa koñ bi ak les bons volontaires ñu nii dañ koy détruire def ko juma booba léegi nag am na ñu nga xamante ni ñu ngi ciy dugal seen seen seen seen astuce yi ni am ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp tamit ndax képp koo xamante ni dugg na si koñ bi rek yàlla dénk la ndomba tànk rek daan la ko sollicité bu ko defee liggéey jumaa ji luñ ci waaye def sa bopp nga ko defal loolu donc laa si doon dolli maa ngi leen sant leen gërëm ngeen xam ne tamit président ci suba ba léegi mi ngi ci déplacement yi yombul am na ñeneen ñu nuy xaar vraiment kontaan nañ trop ñu jox la président mu waxtaan ak yéen merci. jërëjëf mbokk yi ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu Ousmane eh, soxna Racky Gadiaga yaa ma dalal maa ngi lay sant ci dalal bi di ko sante Ousmane. boobu ba léegi mi ngi sonn ci ñun bi ñu fi duggee ba léegi te dañu wax ne diw baax na ndax mbokk yaa ko wax fi ñu yóbbu ñëpp yëpp nee nañu baax na ay wóllëreem lañu waaye tey moom dalal na sunu xel ndax daf ñoo indi si biiri mbokkam te mbokk yi ne nañu baax na mbokk yi ne nañu ànd nañu ak moom moo tax ñu am mbégte mu rëy ci ñëw fii ci ëttam di leen sant bu baax a baax a baax a baax ci ci dalal gi di la sant soxna si ñang ci kàddu yu rafet yi nga yëkkati léegi di sant soxna mboose njaay ci tamit kàddu yi mu yëkkati seeni tur ñun nag ma bëgg ngeen jàppale tur bi man Cheikh Alassane Sène laa tudd di doomi Sénégal bokk fii ci ndarit ndax samay waajur fii lañu cosaane bëgg jël réew mi bëgguma ko nag ndax dama jékki-jékki rek yaakaar ne ñëpp mën nañ ko wut ma ne naa jóg wut kom ñëpp déedéet bugguma ko it ndax dama bëgg am koom kom ñi fi dote jaar ba defar sa dund ak sa dund déedéet ndax su fekkoon loolu kese la damay toog sama ruq li ma am aslëf ma dundee ko suma njaboot waaye bi ñu ma tëjee fukki weer ak ñett ci kaso bi bi ñu jàppee bi ñu saaga gën gi mindeef sallallahu alayhi wa ma jooytu li président de la république demoon ca marché Charlie mu ñëw ndax am na doole daal di ma jël def ma ci kaso bi ma ne ko dimbali nga ma nag ndax dimbal munta paase nga bind mille pages ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi ma génnee ma ne ko jéggal naa la waaye tamit dinaa la dimbali moom wëlbatiku ma am leneen lu ma jàngat ca loolu mooy Sénégal bii ñu war a tëgg ëllëg warul am fayonte lii ki war a jiite Sénégal waxuma sama jëmm de mais ki war a jiite Sénégal dafa war a am yar am tab ci boppam ki war a jiite Sénégal warul parparloo jël njabootam uuf jël njabootu jaamur yi di leen fitnaal waratul am ci réew mi ki jiite Sénégal ëllëg warul jël goroom boole ko ci yëf yi donte goro ba dafa jàng waru ko boole ci yëf yi ndax man suroom sama sago Mansour fay du jiite mairie Saint-Louis suroom sama sago ndax dañu ko imposer nit ñi et ce n'est pas normal parce que Thierno Souleymane Baal dans la révolution Torodo de 1776 moo jiitu révolution française moo wax ne suñu la dénkee ndomba tànku askan wi dangay ngay fexe nga soreel ko sa njaboot soreel ko say mbokk soreel ko say am di jàmm ñu laaj ko lu tax mu ne ndax ñii am na xëy na lu ñuy def lu méngoowul ak li askan bi bëgg te suñu ko defee jalgati am ca doo leen mun a sanctionné ndax ni ñu demee ak yow ci wàllu deret wala wàllu mbokkoo moo tax ma indil leen lii te kat li ma ci seetlu kat boobu ba léegi li ma ci gën a yéem sax mooy ñi nga xamante ne ñoo yor yëf yi seeni xalaat dafa gàtt lool ba soo gisee ñu laakaan ne pavage wala taal ñetti lampe fële wala def benn décoration fële xale yi mën a déedéet idée bi dép asu àdduna dépassé na loolu tey jii àdduna dafa dox soo demee tey jii Qatar bi organisé mondial bi vingt ans ci ginnaaw aéroport Léopold Sédar Senghor moo dàqoon aéroport am tey aéroportu Qatar mooy aéroport bi gën a rafet ci monde bi li ko indi mooy ay nit ñu am vision ba pare yéene seeni réew mais ñàkk yéene ñàkk yéene paasewul lii nga xamante ne président Macky Sall ak ay mbokkam teg ñu te teg bi nag dafa doy ñu teggi ko si suñu bopp ñun ñoo yor carte yi ñoo ko mayoon léegi nag li ñu nar a def mooy ne dañ laa joxoon jot na nga delloo ñu suñu yëf moom tamit mu am élégance delloo yëf yi te moom su nekkoon gentleman wax dëgg yàlla du laaj troisième mandat déedéet wax dëgg yàlla waaw su nekkee gentleman eh, nga élégant wax dëgg yàlla ba pare nit ñi di la wax ne waaw yaa fi nekk li nga def ci réew mi deful dara man maa leen wax lii adduna bi ni mu doxee laa wax ni adduna bi doxee laa wax li mu def fii ci réew mi ñu ne waa yaa tabax estat yow yaatal nga tali yaa ngi indi berte mais yooyu mooy li colon bi bëgg 1960 ba léegi pour bëgg continuer du ñu tënk ñun non dama wax ji faamu leer pour bëgg lu ñu tënk moo tax ñoom ñu yor doxalin bi boo xamee colon bi moo ko digle mooy la France ñun dañu bëgg a génn ca loolu indi loo xamante ne yéen jigéen yi dafi ëpp tey li ma bëgg ci yëf yi mooy créer une banque des femmes boo xamante ne dañu ci bëgg injecté cinq cent quatre-vingts milliards de francs fa xaalis boobu mi bàyyi ko ci wax le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde jigéen bu ne dina mun a am financement ci réew mi te dootul sonn parce que xool naa quatre-vingt pour cent des femmes saa yi ñu amee financement bu bàyyi ko ci banque dañuy perte après ñu am ay coono àdduna yu dul jeex pour fay bor bi te soo leen fayee bor bi ba pare dara dootu leen ko desee yéen yéen a ngi ni toog ban jigéen ban jigéen ci yéen waaw waaw soxna Mboose laaj bi yéen ñëpp ko moom ci yéen ci yéen ñi toog fii kan moo fi am boyet boo xam ne am na ñeenti ñeenti ñeenti jaaro or yu ci nekk nga xam ne denc na nii di laa bëgg xam a ah, xool leen li ah, waaw di laa te te te li tax ma laaj question bi li tax ma laaj ko tey bokk bokkatul ci seen xalaat pour ngeen dem ci bijouterie pour jëndati dara foofu parce que parce que kër tënk na leen léegi waaw loolu nag attention man li ma indi mooy jigéen nekk ci naataange laa indi ci réew mi wax yemuma ci loolu waaw waaw lée lépp nag lépp mi ngi lépp nag mi ngi nekk ci ngeen jël décision man bëgg naa tey ji bëgg naa tey jii soxna si ya mi uuf doomam bëgg naa ëllëg mu mun a am visa dem Dubai ne xaaral ma noppal sama yaram tuuti ndax li ma liggéey sama réew ma vacances tuuti waa dëgg la lii laa bëgg waaw lii laa bëgg waaw lii laa wallaahi lii laa bëgg waaw lii laa bëgg waaw waaw. waaw waaw. wallaay rax na bu gàtt mooy kontaan naa. jërëjëf soxna Racky. nga boo ñëwoon di fi wax waxi kasaw kasaw du ma dëgg la ndax ñi fi nekk ñëpp ay ceeb la ñu nekk seen i kër. reer te ku ma ci fëgg nga wuyu si. la moo tax. danoo bëgg fulla ak fay. dëgg la ñu fi nekk ñëpp ay jéego ku ne yaa ngi am loolu liggéey ñu koy liggéey de. yàlla ak sa cëmm ji ak sama cëmm ji ak cëmm Ousmane Ndiaye ñooñu. wallaay dëgg kon yàlla bu yaakaar tas. amiin amiin seen faaleeg maawa yaa xam li ngay wut yàlla la ko yàlla yàlla. amiin amiin barka yaa rasulallah. sallallahu alayhi wa sallam macha allah. lu ma ñaanal maa ngi wallaay xam naa ko macha allah gajaga jërëjëf macha allah macha allah. barka Mouhamed naa la fekk pale. jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam yow ba allah ñu nag moom macha allah. wala non li de de lii lu ñu nar a def la lu ñu nar a def la yéen a ngi yor waaw Eh, soxna Racky jërëjëf yaa dalal ci ci ci ay tàccu ak wane ne fii sa kër la soxna Mboose feelu la waaye soo moytu danaa fecc fii nag wax dëgg yàlla waaw sant sant naa bu baax Ousmane eh, liggéey bii ñu jël dama bëgg suñu demee ci élection yi incha allah mi ngi tombé février 2024 même su Macky Sall bokkee ci élection yi bëgg naa su toogee ba timis jot mu yéemu ci yàlla li xew ci réew mi te dama wax ak docteur Aliou Niang wax ko ak Ibrahima mii di coordonnateur national ma ne ko suñu jàllee parce que moom teg na ma yu metti yu ne ci réew mi yu metti yu ne nag ma muñ rek ma muñ du ma jooytu musuma jooy wax naa ko gaañ ñi nee naa leen Khalifa Sall laataa ñu koy jàpp wax na ba dënnam jóg mu jooy Idrissa Seck bu ñu ko jàppee ba bàyyi ko dem na RFM wax tuuti jooy man fukki weer ak ñett defuma dara amul procès ba ma génne jooyu ma te boobu ba léegi it kenn mënul am na ñetti ni sax yu am émission ñoo tuddee ko sensation ne ma léegi dañu bëgg nga waxtaanee sa jaar-jaar ci kaso ma waxtaan ba daaneel ñu ne ma waa li ci yéeme mooy doo jooy ma ne ndax dama am préoccupation mooy génne sama réew ci ndóol te loolu dafa àndul ak jooy li mu ànd ak mooy dëgër góor dafay dëgër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne teg dañ ko ko waa góor day dëgër lii mooy dëgg soxna si góor dafa war a dëgër surtout nag surtout soo amee ay jigéen ñu nekk sa réew ba pare am jàmbaar bu mat sëkk bu nekk ca ñoom loolu laa gis jigéenu senegal Sénégal teraanga Ndar jooju nag ngeen ma terale léegi damay ñaan sunu borom moom rek moom mën moo joxe nguurit ni ko rakki ñaane léegi moo wax qul allahuma malika al mulki tuxti al mulka man tacha wa tanziu al mulka min man tacha wa tuxizu man tacha mu tëjee ko bi yadika al xeer innaka la kulli cheyin xadir moom rekk mooy joxe moom yal nañu may ñu bokk ko Ousmane mii ñu àndal nag wax dëgg yàlla Ousmane war na tàmbale suñu duggee ci pare mu tàmbale séddale billet yi fii billet Makka yi dëgg la loolu mooy dëgg. soxna si soxna si li ma wax nii man bokk na ci samay rêve lu ëpp ci ay nit ma yóbbu leen ñu dem ziyaari yonent bi ndax moom rek la ñu doon sallallahu wa sallam moo tax ma wax ne Ousmane mi Ousmane mi bëgg nañu taxawaayam ci yeen ak yéene bi mu am ci yéen yàlla dimbaliñu ba mu soppeeku jaare ci suñu ay loxo ñun ñii ci barke gën gi mindeef sallallahu alayhi wa maa ngi leen di sant nag di leen gërëm ñëw ñëw ndar bi fépp neex na waaye waaye rakki fii nag fii fii gënal na ma fii wax dëgg yàlla waaw waaw fii gënal na ma waaw gënal na ci yàlla kéemaan la beneen nag ah mais lii moom ah doy waar sallam directement ñoom yonent bi la salaamaaleykum. ak soxna ma rek bi ak sama goro ba lay sama sama goro la waaw vraiment ñu nekk ñu nekk ay jigéen ba nee nii ma non xam naa bu leen fi dajale woon te ay mbooloo lépp man après xam naa ndax ñun ñoo toog na liggéey xam naa seen liggéey yéen ñaar rek nañ toog parce que waxoon naa leen le président bu ñëwee daañu ko fexe bu indi ngeen toogoo moom waxtaanam après li si des ñun ñoo koy liggéey ndax man xam naa loolu talal kawaat loxo mu ni ma yow foo mu yóbbu fa la pare foofu li ngay liggéey ensemble depuis moom ma nekk nii donc lu leen doon wax rek ginnaaw moom laa leen wax ci kanam xam naa seen capacité xam naa seen taille xam naa li ngeen mën fii ci maa leen di talalaat ci kanamu le président Cheikh Alassane Sène ñu liggéey comme ni ñu daan liggéeyee bu bañ a boole lenn lu dul pas-pas bi ñu xam ba nga xamante ni bi ngeen ma xamee ma xamee leen ko noonu ak njàmbaarte ak dem ba nga xamante ni amuñu tànku ginnaaw en kanam rek la parce xam ngeen ni man su ma xasee ba tuuti dugg naa yaa ngi dégg mais tamit su ma gisee lu ma xam damay leen di am na diine am na lislaam am na iman loolu rek Sénégal loolu la soxla jamono ji soxla wul ko soxal soxla wul ko nga xamante ni maanaam day day fayantoo. déjà sama liggéey laa tëdd xaykan daw si ñoom lu nekk dañ ci lijjanti dañuy xëy bàyyi sa kii ñii dañuy ndax ñun quartier bi ñu nekk presque ñu ci ëpp ay moom la ay naa suñu yaay dañuy suñu morom yi dañuy dem jaay ji ñun ñi ci nekk ñun loo ci am dañuy xëy suñu liggéey suñu biir kër ngoon jotee ñu dem jaay ndaxte lu tax ndar bu napp amul te loolu dañuy naxee chaque jour chaque année heure bu ñu ñëwee foofu la ñuy yóbbu te loolu dañ ci sonn heure bu ñu paree parewaat nañ ci bàyyiwaat mu nekkee woon ñu nekk ci léegi nag ñun ñu demoon ba sonn toog bi ñu Ousmane mii waxee ni yow ñu seen essentiel mi ngi seen essentiel mi ngi ah wax dëgg yàlla xamuñu la de mais Ousmane xamal te Ousmane am am na fu ñu jot a ànd ak ak ñi dajaleen ci terrain xamante nañu bu baax bi tamit dina ñu demee tamit ba gis ñu liñ si kii itamit dañu suñu kër jàpp suñu ñu Ousmane ko ah ñun di xam moom waaye daan ka daan ka daan daan ka recevoir daan tamit li muy wax te am naa yaakaar ne Ousmane mii li tax mu toog nga xamee mu ko dara jaaxal amaan na ni bu ñu waxtaanee dinañu wax li nga xam ne nii tamit dañu toog ndax Ousmane bi ñu gis ci dara ñu ñàkk Fatou moo alal ak Assane maa ngi déglu ñu wax jéeg. macha allah macha allah <laughs> soxna si nag man sama tur ni ma waxee foofu lay jaare d'abord mooy wax leen ne maa ngi tudd Cheikh Alassane Sène dëkk Ndakaaru di doom fii ci Ndar aussi sama yaay sama waajur wu góor yëpp fii lañ soxi ko sama yaay waa Halpulaar la waa Fuuta la waaye ay mbokkam yi ci ëpp fii la nekk sama papa fii juddoo donc defe naa maa ngi sama dëkk ma bëgg nag di laaj réew mi dëgg la ñu bëri ñu ngi koy laaj man du ma politicien lenn rek moo ma dugal ci lii mooy def kaso fukki weer ak ñett moo ma dugal ci lii ndax soo nekkee kaso da ngay am temps wu réfléchir bi ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la métti lu woon li président demee ci marché Charlie mu ñëw tëj ma jaay ma doore tëj ma bi ma tëjee ma ne fukki weer ñett amul procès ma xëy xëy ñu bàyyi ma ne ma mun ngaa ñibbi ma génn baal ko parce que pour man loolu mooy jikko bi war a gën a kawe si suñu diggante yi ñun rawatina ay jullit waaye li ma ci gën a jàngat mooy jamono bi ma fa nekkee ginnaaw li ma bind ci yonent bi mu toll ci ñeenti junniy page bi dama bind benn téere pour wax naka la ñu war a tëggee réew mi ci wàllu yëpp bàyyiwuma benn wàll loolu nag du yàgg dara di nga gis léegi film bi dana tàmbali daw ndax liggéey nañ ci liggéey bu ama am solo Ousmane mii ñu indi fii dama ko wax ni li ñu gënal ci ànd bi mooy àndu nawle man bëgguma ku ma dimbali ci liggéey bi la dama gis forme dimbali bi xew ci réew mi mooy dimbali nit mu yàlla dimbali mu jot ci ndomba tànk ba noppi wan la ginnaaw nekk ca leneen parce que li ko waral lu ñu dul seetlu mooy ñii politique ci réew mi ñu ci ëpp ndomba tànk bi ñu bëgg mooy pour changer seen dund ak seen dund njaboot moo tax suñu xasee ba am ndomba tànk ñu fàtte ña leen jàppale woon parce que xel du jàpp ñaar man nag su fekkoon loolu rek laa ci wut damay préféré toog ak sama njaboot li ma am aslëf ma dundee ko ak ñoom mais dama bëgg ni xew ci yeneen réew yi ci ay wàllu teraanga mu xew ci suñu réew moo tax ma tëgg projet bi bokk na ci nag benn jukki rek laa leen ciy wax ngeen ñaanal ñu ci yàlla yàlla may ñu ñu mun ko réaliser pour que Afrique yëpp mën a jaar ci yoon bi ñu na tëgg mooy la banque des femmes moo bëgg initier bëgg ko tàmbalee ak cinq cent quatre-vingts milliards de francs CFA maa ngi bëgg jëlee xaalis bi ci le wax le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde deux mille milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds maa ngi bëgg supprimer la mairie de Dakar bi nekk Ndakaaru supprimer ko jël bâtiment ba def fa la banque des femmes soo jàddee ci ginnaaw mairie bi am na bayal bu mag bu nekk ci biir ca ginnaaw la moo jàkkaarloo ak port foofu laa bëgg tabax benn tour bu cinquante étages ñu tuddee ko kër Ndaté Yàlla mu ne kër jigéen ñi pour la formation et le suivi ba jigéen su amatee financement ci banque bi du mun a perte lii laa bëgg tàbbal ci réew mi tàbbal bi nag li nga wax mooy ñu dimbalante ci wàllu ngeen taxaw ñu taxaw taxawaay boobu li ci ëpp solo mooy ñu xàmmee en 2024 ban Sénégal lañu bëgg pour man c'est capital ndax Sénégal bi ñu bëgg mooy bi Macky Sall ak ñeneen ñi tabax te ba léegi taxawul wala dañu bëgg benn Sénégal de rupture bu indi lu bees ak xar kanam bu bees bokk na ci trois mois yi may njëkk def ci pale bi mooy dem vers un référendum pour hymne national du Sénégal kenn dootul wax ci njëlbeen pincez tous vos koras frappez les balafons ci place loolu maa ngi wax ne dama bëgg ñu màggal yàlla la place de pincer les koras ak frapper les balafons ñun suñu loxo warul jàpp loolu mi ngi war a jàpp ci tàllal suñu loxo ci suñ borom mi ñu jagleel tey ji jama or jama pétrole gaz parce que li tax ma wax loolu États-Unis seen dollar xaw ma ndax mos nga gis ca kaw ñuy bind in God we trust yàlla lañu yaakaar seen constitution loolu la wax d'ailleurs soo bëggee prêter serment États-Unis seen constitution dañ ciy jël teg bible bi ci kaw ñun tamit am naa yaakaar ne lu mel noonu war naa tàmbalee xew ci réew mi te soxna si képp ku prêter serment fii ci réew mi nga nekk jullit soo gisee ñuy jalgati constitution bi nii c'est parce que ñoom ñu wax ne téere nii rek la mais soo waatee ci alxuraanu karim est que di nga jalgati waaw loolu laa bëgg ñu initier ko man sama prêter serment li ma bëgg mooy alxuraan bi jiitu constitution bi tegu ci suufam parce que je suis musulman keneen ku ne catholique su gañee mu indi bible ci kaw indi la constitution sénégalaise ba yi dootu ci am beneen combat bi ma am tey mooy poliment ak ak yar ak teggit teg ko ci xam-xam ak diisoo mooy ba Macky Sall bañ a bokk ci élection yi ñu jëm parce que def na deux mandats war na cee jeexal su fekkee dafa bokk nag ñu fexe ba du bokk ci ñaar ñiy génn au premier tour li war da nekk combat bépp sénégalais parce que yenn saay yi ma xool ci télé bi ñu wax ne Marème fay sàll moo baax mbaa ñu ne Marème Macky Sall moo baax. ma ne waaye ñun lii suñu alal la ñun xam nga baax bi feeñ bañ la dénkee daa waroo lool ak baax bi feeñ bañ la dénkulee te baax bii ñu baax baaxu suñu alal la moo tax bokk na ci samay projet incha allahu taala 2024 euh, sama soxna li xew ci réew mi di yokk corruption muy fondation yi ñuy jox première dame yi dama ko bëgg dakkal parce que dama yaakaar ne li muy gën a yokk ci réew mooy guerre te guerre boobu day gën a taxawal suñu koom de man nag maa leen tàllal loxo Ousmane laa jël muy seede parce que moom te am ñu yéene ci moom noo leen ko décider rek ak noo leen ko doxalee mu gënal ñu li ëpp koon solo rek mooy seet si bi ñu leen seet si ni ak dalal bi ngeen ñu dalal maa ngi la ci sant sant bu bu wér sant bànn Mariette ak sa sœur soxna si jaay maa ngi sant bu baax a baax a baax jërëjëf du duñu engagé wu du ma la ne engagé wul ci wàllu politique yàlla moo la tax ñu def ko mais jarul ngay jéem a parce que def ma ko pour ñu ànd du tey du ëllëg aussi bëgg aussi mu leer parce que kenn du pour man ñu fooyee suñu borom da yaakaar moo tax nga taat bi wax ko sama kanam non mënoo nga bàyyi ba nga dem nga waxtaan ko ñoom xëy na bëggoon ma jot ci su ma ko defee aussi waaw mais yàlla rek moo tax mais pas pour ñu am dëgg animal yi mu topp toppatoo leen ko incha allah kon soxna si sant naa bu baax waaw gërëm naa leen waaw maa sant bu baax waaw d'accord كما القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تحصروا الميزان والأرض وضع لأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخر والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين